rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi xarit yi soppe yi am di jàmm yi del si nañoo ak yéen seen émission ataaya ndëmba wan des émissions wal fu jëm kanam comme d'habitude pour dab bi topp suñu ginnaaw petit li nga xam ne moom laa lay wax parce que man duma sa doom duma sukaa waaye sukaa luñ ko def baax na ni mu bonee te iñaan respecté li nga xam ne moom laa sukaa xam naa sama wat bi iñaane na <laughs> tàcc leen loolu basal <laughs> di nuyu yëpp di ziar yëpp mm. war fu jëm kanam ko dami di ma ci ànd sama jigéen loolu tamit da koy bañ ba ci sama kaas a ah, doo wax tey tey bañ loolu maa ba kaas <laughs> xanaa da sama kaas bëti wala man toj fees for cotise pas e ga mu garab du neex ndoxum géej da xaar ma faj boppam alhamdulilahi rabbil alamina ñu del see yéen mission émission ataaya béti ci loo ne waxtu bu baax waa ngoog ci li ma nekkoon liggéey jaamu yàlla di nuy nag bu baax a baax képp koo xamante ni jamono ji rek yaa ngi ko kal ci sa télévision wal fajri niki vendredi bu nekk ci 22 heures bi le nga xamante ni mooy waxtu wu baax wi nag waaye day fekk nag nga kal ko ci wal fajri seen ay ci noo yàq nga say sa bët sa bët ngay yàq dangay mi yop da ngay mi yop ñu nuyu nag suñu invité yi waaye nuyu également assistance bi ñu tàmm di ko defee ñoom ñi ñëw wuy si suñu invitation. Mhm. ñu ngi leen di remercier bu baax a baax saa fu nu jëm. béti ñu wax ne Sénégal kat dañoo qualifié coupe du monde. ban ñu ne ah coupe du monde de bañu qualifié ñu defee ne ñoom saajo Mané kese la ndekete am na it beneen coupe du monde boo xam ne invité nañu ca. muy coupe du monde de malaat mantal maanaam ñi am feebaru xel manto waaw manto taal ma defe ne mooy wala tout des malades des malades mentaux coupe du monde ba ñu daal ña nga xamante ni bii ka nga xam nag moo fexe bañ invité ñu ci coupe du monde boobu mu daa dee teew ci plateau bi waaye nag coupe du monde ba béti loo ci xamul hmm. ña nga xamante ni bi ñoo ca war a dem ba tey hmm. amuñu billet te coupe du monde ba daanaka yegg si na hmm. kan moo ñëw ngir fas yéene yëkkati kàddu yooyu Abdoulaye Bopp moo ñu xam leeg moom laay dikkal ca 136e laata muy dem ca CM Falidou Diop am fa lijaasa BFM daal di wutali lycée Mame Seydina Limamou Laye ba ci classe bi di terminal fa la bàyyee njàngam bu dee ci wàllu sport maanaam tàggat yaram Malick Bitey jot naa football Magadan doonoon fa seen capitaine bokk na ci ci kuréel gi jóg ngir suqali lii di quartier CFA atum 2007 Malick Bitey daal di jël xalimaam ci ab livre ci mbirum immigration clandestine ba loolee ko yóbbu ca Belgique jaaree fa doon moodu moodu def na lu tolloog Italie jot na fa liggéey ca tool ya liggéey na pâtisserie liggéey menuiserie laata muy def formation ci wàllu wérgu-yaram ca Italie Olof Njaay léeb ne jom mooy tukki waaye fulla mooy ñibbisi ci atum 2015 Malick Bitèye dellusiwaat ci réew mi daal di taxawal kuréel gu ñu duppee mouvement Gindi pour le développement malik Bitèye ne la mu taamu ci lekk bokk na ci ndambe gu am dogu yàpp ndambe bu ànd ak ndogu yàpp Malick loo wax ci plat boobu. waaw plat bi de bañuma ko wax dëgg yàlla waaye donte waxuma ko. maa <laughs> Malick a ngi setal daram am na yeneen lu ma gën a préféré. Ah. waaw muy bëgg nga ndambe muy domoda. ah domoda bu yàpp wala bu jën. domoda bu mu ci mënti doon. na doon domoda rek <laughs> ñu ngi leen nuyu di la dalal. waaw maa ngi leen di fay. di leen nuyu. waaw vraiment. Euh, ah, bu dul rendez-vous Amba dafa neex. waxal yow nuyoon ci ci ci invitation bi. Mm. di nuyu euh, ñi euh, bokkal plateau bi. Mm. vraiment di nuyu public bi public bu taaru bi di nuyu waa Sénégal yëpp donc di am mbégte bu baax di teew ci ci plateau bi. jërëjëf Malick mi ngi am mbégte ak kontante ginnaaw bi nga xam ne yëkkati ay kàddu ba pare béti béti fan lañ jëm. ah ñu jàll nag ci feneen ci biir Sénégal xam nga ni secteur artisanal bi gars yi dañoo sonn ah, dalaloon nañ ñu fi ah, ñi nga xamante ni ñoo di tailleur yi waaye bii paa nag ñii seen secteur chinois yi dañ leen a sonal dañuy dañuy importer ay dàll di importé ay sac hmm. waaye nag sénégalais yi aussi mel na ñoom nee nañu sénégalais yi dañoo bëgg lu yomb ñoom ñoo ko wax ñoom ñi liggéey ci secteur bi. ngir waxtaanee ni ko nag ndaxte nag chinois yi ñu fàttali également ñu ngi bëgg dugg ci secteur euh, couture bi euh, dinañu waxtaanee daal li nga xamante ni nag euh, moo leen sonal maanaam daal li yeeg saag yeeg chinois yeeg ni leen fàtte ki ñuy xamale ki leen fi teewal nag Abdoulaye Bob la. laay dikkal ndongo Thiam lay wuyoo judo Jurbel màggee fa ba muy wut si Ndakaaru tàmbalee daan dooleem daal di soobu ci métier cordonnier maanaam udde ca Medina la ko jàngee ci atum 1989 booba tey ndongo Thiam mu ngi béy waaram ci réew mi rawatina ci métier udde don ci kàngam ndongo Thiam ne la mu taamu ci lekk di laaxu bisaab ndonga caam laaxu bisaab. ah ndonga la. Ah, Abdoulaye boobu dinaa fekkaat ci kaw Abdoulaye boobu ko laaxu bisaab ah. ko wax. Ah, ok loo ko wax man ceeb bu xonq laa bëgg. laa bëgg bu tëfal moo tax may neexal ci kaw. mais laaxu bisaab neex na. ah na. déedéet naqari waaye loolu ñu feebar ñi kii yor malade mental yi moom ngeen waroon def laaxu bi ah. <laughs> ñooñu moom malade moom day naan laaxu bisaab. non feebar la feebaru yaram ak yooyu en général. ça voilà très bien comme ça ayca day tooy rek lay ñu bàyyi nga nuyoo ba noppi comme ça <laughs> <laughs> maa ngi leen di fay mhm. eh, di nuyu aussi sama xarit yi ma bokkal plateau bi mhm. ak euh, euh, monsieur Samboj euh, so Sandiogou ak sunu téléspectateurs yi ànd ak ñun gunge si ñu mhm. eh, di joxe ñëpp seen wàccuwaay di leen xamal noo nga moo fi toogal collectif des cordonniers du Sénégal et de la diaspora. d'accord xam naa bu ñu demee ba ci kanam dinañ ci gën a waxtaan. incha allah saa ñu dugg euh, xam nga nag béti. Mhm. waykat yi dañuy way. Mm. waaye léeg-léeg ñu ne ajal. léeg-léeg ñu ne yëkkatil. léeg-léeg ñu yër. léeg-léeg ñu ne un <laughs> booy bii nag di ab rappeur daal di ne un moo ko déranger. ba tax mu daal dee jóg def benn son classe ka nga xam ni kii moo ne parce que nee na moom jàngul nasaraan waaye jàng na alxuraan tana rafet hmm. kookan la Ablaye Bob moo ñuy xamleeg moom laay dikkal Arona Ndiaye judo quartier Thiofak Sancani foofee ca Kaolack doore njàngum arab foofee ca Kaolack waaye jotu caa sori ci la tàmbale soobu ci liggéey di yëngu ci wàllu menuiserie Arona Ndiaye jot na yëngu ci wàllub njaayum xar ak njaayum mbuus doon na fi carreleur ci atum 2006 Arona Ndiaye daal di soobu ci mouvement hip jot na cee béywaar wu yaatu jot na amal konser yu bari ci gox yu wute lool fu mel ni Gossas Njaxate Kutaal ak feneen ak feneen Arona Ndiaye ne lamu taamu ci lekk di cere baase rawatina baase gu ñeex ma fanaan rawatina dansé mu ñeex ma fanaan booy looy booy booy la daaboo ñeex ma. def la ko sa sama yaram non ma fanaan. non ba non cere baase moom sama kii la du du ma fanaan quoi. ñeex daal na bees sax. ay ñu ngi lay nuyu. ok ñu sant yàlla bu baax. ñu ngi wér ba ñu mm. fekkee li incha allah ko mm-hmm. di nuyu Sa Ndiogou mm-hmm. ak soxna ca euh, Béti mm-hmm. ak ñi ma toogal ci palaato bi di nuyu ñi ma fekk fii nii ak ñi ma àndal jugee Kaolack ak ñu jugee ci yeneen gox yi ndax sama jëmm ju xeebu ji quoi di nuyu nag suñu papa Sidi Lamine ak képp kuy liggéey ci télé bi nuyu sama waa dëkk ma jugee muy Kaolack Ndangaan di fi nuyu nag sama waa koñ coof ak sancaan ya di nuyu suñu dëkk waa Fass Bërigo di leen wax ni daal maa ngi nuyu sama yaay mi may seetaan di ñaan sama papa fa mu nekk gënal fi mu di ñaanal euh, ki nga xamante ni moo fi jóge bu yàggul ñu koy wax Habib Faye mm-hmm. dana ko yàlla xaaya àjjana maa ngi koy jàll ñëpp daal di sant yàlla bu baax di rafetlu nag invitation bi daal d'accord dañuy dem ci beneen euh, secteur cette fois-ci nag dañuy daal di dugg ci li nga xamante ni moo di politique bi politique bi moom jamono ji moom foo laal day metti defe naa ni euh, parti yëpp yëgandoon nañ ko am ci ñoo xamante ni àndoon nañu ak président de la république seen jiit nekkoon na fi ministre euh, ministre conseiller ànd ak président deux ans waaye lam ca wax ak lépp ak ñoom ni ñu gisee situation politique actuelle réew mi moo xam vote loi parrainage bi passé nii yàggul dara ak situation wu dëkk bi ci politique bi dinañ ko waxtaane ak ñoom ndax ñoom am nañ ci seen gis-gis ki leen fi teewal Abdoulaye Bob xamale ñoo moom fala Kaolack fa la fa njàngam laata muy wut si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ca faculté des sciences juridiques et politiques Landing Ndiaye jot na fa yëngu ci wàllu syndicalisme universitaire Landing Ndiaye doon na écrivain di yëngu itamit ci wàllu journalisme jiite kuréel gu ñu duppee mouvement national jeunesse modèle bu dee ci wàllu politique mu ngi yëngu ci parti bii di kaar leneen bu professeur am Sow Sidibé Landing doon ku jiite kuréel gu ñu duppee mouvement anti Macky et compagnie la mu taamu ci lekk di mbaxal mu tooy xepp ak lingom ja lan di mbaxal laaj na ku bëgg mbaxal nga bay ñuul non fii moom moom jàpp na ko quoi. <laughs> mbaxal nga bëgg bañu ma ko bañu ma ko bañu ma ko yëpp su ñëwee rek yëpp baax na bëgg nga ko bëgg nañu ko mbaxal mu tooy bu am li moom bañu ñu ko bañoo ci benn bañu ci dara ay ñu ngi lay nuyu ñoo ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal hmm. di nuyu képp ku ñuy seetaan si télévision Walfadjri yi ak hmm. képp ñu ñuy déglu tamit ñoo ngi leen di remercier ci invitation bi ngeen di defal ngir ñu mën a ñëw waxtaan ak sénégalais yi ci situation dëkk bi. Mhm. mais tamit balaa may bàyyi kàddu gi danaa nuyu suñu njiit le professeur Amsatou saw Sidibé mu jiite parti bi di kaar leneen. Mhm. incha allah danañ gën a ak yéen au cours de l' émission. ñu fi gën yaatal suñu teewaay. d' accord d' accord jërëjëf. Alaaji Moodu dikkal. ayca mi ngi noonu nag ñu dugg daal di dugg ci waxtaan bi ki ni koy ubbee rek di bi tey mi nga xamante ni nag moom uh, moo fi yor kàddu bokk bu ma neexee waxee ko noonu ndax uh, moom uh, encadrement wu ci malade mentaux yi dafa leen res nekk seen responsable di leen coacher saa su nekk mu mel ni Malick ñun li ñu buggoon a xam rek mooy da nga ni malade mentaux yi dañ leen invité ci coupe du monde de football. waaw waaw bala ñuy egg ci loolu sax sa àndandoo ak ñoom fu mu soqee ko lan moo ko indi. waaw euh, bala ma commencé waxtaan bi damay euh, leeral benn mbir bu ndaw. ndax bi may présenté dañ ne dama bind livre. Euh, par contre du bind dama participer ci benn livre. du man maa ko bind. ay association belge ñoo doon def ñoo doon wax ci wàllu immigration clandestine. Mhm. ma joxe ci sama contribution donc def benn préface. Mhm. waaw pour ñëw ci waxtaan bi nag vraiment laaj nga ma lu ma neex ndaxte man d' abord. Mm. Euh, comme niñ ko présenté dama demoon Moodu Moodu ji euh, bi ma demee Moodu Moodu ji euh, vraiment ma profito ci loolu defaale formation di jàng di liggéey. formation def def formation pendant trois ans. Mm-hmm. génn am benn diplôme bi nga xamante ne mu ngi tudd diplôme d' opérateur socio sanitaire. Mm. alors opérateur socio-sanitaire opératore socio-sanitario moom mooy euh, équivalent wu aide médico-psychologique mhm. maanaam ñun ñun ñooy gunge euh, mag ñi mag ñi d'abord màgget ñi mhm. ñun ñooy gunge aussi les malades mentaux dans les centres psychiatriques mais aussi parfois ñu yóbbu ñu te aussi ci kër yi su amee ay problèmes d'ordre euh, social affaire yooyu ñun ñoo koy ñun ñooy dem taxawu leen donc accompagnement boobu laa def mais liggéey boobu li ma ci gën a neex ma ci centre psychiatrique yi ma jaar mu am benn benn benn passion bu bu bu doy waar ci avec les les malades mentaux ndax dama xam ci ñoom lu bari. Mm-hmm. alors. Euh, loolu extérieur nga ko doon defee en Belgique. Ah. no loolu maa ngi ko jàngee Italie. Italie maa ngi ko jàngee Italie fu ñuy wax Pinerolo. si nooru Italie bi diplôme intercorporal. non operatore socio sanitario ñu koy wax ah. OS. voilà euh, nag. Euh, sama àndandoo ak ñoom ba tey. Mhm. Euh, bi ma loolu intéressé donte maa ngi doon job ci yeneen secteurs yi euh, mu am loo xamante ne dafa lu ñuy wax parfois utile ak agréable man ma nekk ci lenn am ci passion ba pare am beneen passion muy football. comme mhm. football naa def na sport et tout ça. Mhm. ñu utiliser football ci biir euh, pajum malade mentaux yi. maanaam su ma waxee faj nekkul loo xam da ñëw faj leen ñu wér mais da leen di accompagner ba. yenn symptômes yi ñu doon am par exemple crise yi ñuy am ñu yuuxu fii wala ñu dégg ay voix et tout ça yooyu yëpp day wàññeeku maanaam day da leen di da leen di ngeen leen di apporter benn assistance effectivement dañ leen di apporter assistance boo xamante ni daf leen di tànneloo bu baax a baax a baax a mm-hmm. te loolu du ay tàndu du ay xam-xam la boo xamante ne bu sell boo xamante ne effectivement mm-hmm. mën naa ko expliquer alors damay damay damay damay commencer ci benn benn exemple mm. euh, malade mental comme ni ñu koy jàppee Sénégal am na sax ñu nga xamante ne euh, annonce bi ma def wax coupe de monde des malades neexu leen ba ñu def ma euh, ay reproches et tout ça mais c'est des critiques objectives yoo xamante ne jël naa ko mais may yëgal waa Sénégal que man li may wax nii du sama wax waa OMS ñoo ko organisation mondial de la santé nee nañ adduna bi. Mm-hmm. ñeenti nit yoo ci gis kenn ki ci giiru dundam mës na ci am problème mental. gis na ci am feebaru xel xañ na nag dinañ ko yëg wala duñ ko yëg comme suñu réew yi ni mu demee nii tàmm ñu di dem di xool psychiatre mais ñu bari ci ñun ñu ngi am problème yooyu te yëguñu ko sax hmm? waaw maa la wax loolu ah comme ñu professeur Aïda Sylla am problème te yëguñu bi nga xamante ne moom mooy chef division ah, santé mentale ah, da koy wax naan ñun ñooy médecins yi nga xamante ne amuñu ay malaat ndax kenn bëggul dem ci ñoom hmm. gis nga nit ki ni muy feebaree boppam metti wala loxom metti wala mm-hmm. noonu la aussi amee problème mu mm-hmm. xel mm-hmm. voilà donc euh, ma ñëw ci explication lu waral football ak maladie mentale non non parce que dañ koy déglu parce que li mu def ñoo jaaxal may ñu jàmm noppi parce que mais nag attention euh, euh, loolu yaa ngi wax ni nga doon doxaleeg ñoom. ca mm. biti réew. Mm. gannaaw sa formation. mais bi nga ñëwee Sénégal contact bi ak yooyu nan la demee ñoom tey ba ngeen egsi fi ngeen egsi. parce que li ñu wax loolu parce que il faut ma yokk mm. parce que ñaari kii parce que fii dafa am ay dofu rab dofu yamba xam nga dafa am. ay façon parce que xam nga am na rab ñoo xam ne dañuy toj seen njaq ñu daal di am problème effectivement yooyu mhm. est-ce que méngale nga léegi léegi nu ñuy defee ñoom seen kii très bien yan la euh, léegi moo waral ay ndëpp yooyu yëpp am Sénégal n'est-ce pas moom mooy suñu cosaan ak euh, ma wa ma leeral leneen tamit que man du ma du ma psychiatre mhm. du ma docteur boo xamante ne sama xam-xam dafa màcc foofu mais man mhm. dañ maa formé Euh, psychiatre yi bu ñu jëlee euh, malaat ñu diagnostiqué ko ba pare. Mhm. ñu ñoo leen di accompagner pour dàq yenn symptômes yi nest pas mais comme ni nga ko waxee rek. waaw muy euh, drogue ak. muy yooyu yëpp. ak problème mu mais yooyu yëpp problème mu cerveau la. rab. non mbirum da ngay gis xam ne dafa am ay rab béti ñun dëppal ko après mu daal dee. waaw yooyu moom nga xam ne dootul benn problème. du ci àddu parce que. man li may àddu mooy li nga xamante ne moom la ma science jàngal. muy euh, loolu man lu ma gëm la nag. Mm. parce que man sénégalais la fi mm. laa juddoo fi laa yaroo sénégalais laa donc gëm naa dëpp may nuyu sax euh, Serigne Khadim mbay di def mm. ndëpp dëkk sama sama sama gox et tout ça. Euh, ñu ma respecté lañ et tout ça mais man li ma xam mooy li nga xamante ne moom laa jàng muy maladie mentale lépp ci bopp ci ci cerveau la ndax. dama lay expliquer benn affaire bopp ni muy fonctionner. dafa am ay neurones nuron yooyu. ñoom ñooy jàllale yow lépp loo mën ti def lépp loo mën ti hmm. def xamal ne ci ah. cerveau bi la jóge noroon dama bëgg ngeen bàyyi ma xel li may wax na ma waa Sénégal yëpp déglu lii may wax nii lu am solo la parce que ñun comprendre ñu la mooy maladie mentale gis nga neurones mhm. ci biir bopp la nekk moom mooy cellules yi nekk ci biir cerveau bi. waaw léegi léegi yow yow yow côté bi nga yóbbu débat bi. vraiment ñu ci développer ak yow parce que nag duñu ay ay ay ay non non non waaw déglu ñëwee ci ay neurone ak affaire yooyu yooyu yëpp yaa ngi ci santé. ñun li ñu bëgg wax mooy. approche ban nga jël pour egg ci ñoom ki mais li ngay wax ni c'est typiquement médical c'est technique te boo ci waxee loolu wala nga dugg ci ay débat technique ñun duñ ci xam dara parce que santé xamuñu ci du doon débat technique voilà jàngul santé maanaam ñaari xaritu garab garab xam nga noroon noroon lu tudd xam nga xamul dara ci wàllu santé sa xam nga lii bu ma la ko laajee ci ngay liggéey yow micro nga may wax parce que noonu lu tudd ñun olof am amuñu développé wuñ suñu kii ba nga xamante lu nekk dañ ko andil donc man su may expliquer neurone kese laa mën a wax waaw moom vraiment def naa léegi mais waaw ah, baale ma rek di ngeen comprendre su xam nga lii tamit lii ni euh, mooy waral ñun suñu ñun ñun ñun ñun ñun sénégalais africain en général dañoo ragal xam-xam ko ragal xam-xam non non waxuma ak moom <laughs> dama wax en général ñëwal man ñeme naa xam-xam léegi non non c'est-à-dire que li may wax nii bu ñu ko ragal. Mhm. public dinañ ko comprendre ñëpp dinañ ko comprendre. d'accord parce que léegi nañ jàppee noonu benn mbir rek. boo ah, xamante ne moom mooy jàllale information si biir bopp léegi léegi ñu dellu siwaat waaw léegi nga ne malade mental mooy ay neurones yu voilà très bien léegi neurones yi mm. waaw neurones yi mm. ñoom ñooy jàll lépp lu waay mënti def si adduna mm-hmm. dinaa ñëw lépp lu waay ti def si adduna rek mm. neurone moo koy commandé neurones yi ñooy joxe information yi mm-hmm. ñuy jàll mm-hmm. te information yooyu dafa am lu koy jàllale Mm-hmm. information diggante neurones ak neurones am na leneen lu koy jàll muy neuromédiateur léegi nag li tax gaa yi. waaw créé football football bi. voilà ñëwal léegi euh, ah. dañu dafa amoon ay centre psychiatrique yu mag. Oh, nga xamante ne ku sa mbokk bu yàgg ba. nga xamante ne même Europe loolu lañ doon dund comme ñun stigmatisation yi ñuy dund képp ku sa mbokk am problème mu xel rek. daanaka da nga ko fay sànni. Mm-hmm. waaw bàyyi leen fa. mu nekk centre yu mag. Mm-hmm. benn jour nag am benn. psychiatre kuy faj wàllu feebaru xel di doxantu ci biir mais mu gis mu ngi gis ñëpp toog ñu ñu dañ leen defaloon ay banc ci biir banc public fii fii léegi nit ñi nit ñu toogee mm-hmm. xam nga nit bu feebar bu feebaree ci xel xel mi day génn yaram bi mm-hmm. loolu tax ñuy wax esprit sain dans un corps sain mm-hmm. léegi sa xel bu génne sa yaram yow dootoo contrôler sa yaram mooy waral ñii ñu sangu mhm. ñii duñu toppatoo ay yëre duñu seen yoon nekku ci parce que xel ba contrôle tul li ci des ñuy toogee nii xam nga ci biir centre boobu ñu kooku bi muy doxantu ñuy toogee nii ñuy toogee nii ku nekk toog façon bu la neex parce que mhm. contrôler wuñ seen yaram waaw mais xam nga saa bu toogee fii si plateau bi parce que mi ngi ànd ak xelam dafay jéem a toog jéem a arñe jéem a xam nga parce que mu ngi contrôler boppam mhm. maintenant ñooñu comme contrôler ñu seen bopp ku nekk toog toogaay bu la neex kooku di dox ba si yàgg. mooy yàlla def si xelam rek xam naa. mu yërëm leen ku nekk ñu ngi toog bon vie amu fa dara amu fa mu sànni leen bal. bi mu leen sànnee bal boo mu gis ne dafa mel ni dafa am luy recomposé wu dafa mel ni dafa am ay xel yi xel yi dañ doon ñëw di duggaat ci yaram yi. yaram yi di jóg ñu wu ci bal di jóg non yaram yi ñoo commencé di jóg di jóg ba yaram yëpp formé wu waat maanaam mm-hmm. ñëpp toogaay toogaay bi ba jóg taxaw ba dem si ballon bi nag. Mm-hmm. Ah, kon lii nii. bu xam nga tubaab lu mu gis rek mu suscité mu mu am intérêt wala lu mu posé da koy étudier. Mhm. léegi nag mu ñëw ñu ne kon lii nii buñ ko étudier. dañ ci génnee leneen. Mhm. léegi nag. léegi yow bu leen sànni woon bal bi bëri na bal bi nag. ok très bien xam nga boo loolu xewul. xam nga loolu xew fa na xew léegi lu fa xew ñun loolu la ñuy wax. Mhm. waaw ñun li fa xew. waaw loolu la ñuy wax non effectivement. waaw mënoon xew parce que ñoom aussi. parfois waaw réaction bu nekk mën ah, na ci am c'est vrai parce que par exemple ñun aussi bu ñu leen di tàggat et tout ça parfois moom ay ay ay ay comportement yoo xamante ne mhm. xam nga du dëppoo ak comportement yi ñu jàppee normal waaw pourquoi ñu jàppee comportement yooyu ay comportement yu normaux parce que mhm. dañoo am société société bi am ay règle ñu ne ku def lii yow bokk nga ci société bi ku def lii ku def lii ku def nii mhm. xam nga tey jii su ma woddoo woon deru xar dox si mbedd yi dañ naan kii dafa dafa feebar si xel wala kii mais peut-être am na dëkk yoo xamante ne modd la fa ce saa donc société bu nekk ak ni muy gisee léegi nag euh, loolu moo waral euh, tax nga ba ma bàyyi ba ma bàyyi kii bi. mbaa da wala réer yow it. non non non réeru ma sax yow sànni bal. mais voilà voilà. bal ñëw na. léegi léegi voilà très bien léegi merci. xam nga xam nga nit ku nekk nit la. nit kan rek la yow. léegi nag. ñu commencé étudier. Hmm. ñu commencé étudier. def ay étude étude waaw di mm. di borom xam-xam yi nga xamante ne ñooy yëngu si wàllu mm. saytu ay xel ay comportement et tout ça mm. ñu ne waaw euh, comme ballon bi am na lii donc ñu dugal ko laboratoire effectivement bal bi lañ dugal laboratoire non non bon jëfin bi li xew li xew loolu lañ dem toog waxtaanee ko di ci gëstu ba gis ne <laughs> damay laaj damaa bëgg bu li ma doon wax sànq waaw ñu ne ndekete ah, xam nga boobu bal la woon donc football la mais ñu ne ndekete même mm-hmm. sport en général sooy def activité physique mm-hmm. hmm? xam nga mm-hmm. booy football di nga def activité physique di nga entraîner échauffement ba ñàkk waaw ndekete loolu ngay def noonu préparation boobu mm. dafay jural dafay jur ay neurone ay neuromédiateur maanaam li nga xamante ne mooy jàllale information ci bopp ba nit ki di capter di mën a def ay mbir di mën a jàng di mën a def lépp ndekete suy def activité physique yooyu dañuy judd ci biir bopp bi day ñëw comprendre maintenant ñu ne ah loolu de am na solo léegi nit suy def activité physique day jur ay médiateur ba nga xamante ni dina jàll information yi xam nga loolu nit bu ay information yëpp am di jàll duñ ko jàppee ku si xel mm. beneen bi ñu ne kii bu ñëw ci kii bi ñëw ci dobaat technique kii yaa ngi ci technique bi ba tey quoi man damay expliquer li tax waaw ñu ji sukkandiku ci bal ñoom ci ñu tax ñu sukkandiku ci bal pour ne dafay am jeexital ci comme feebaru xel samay noroon nelawul man li may wax damaa bëgg damaa bëgg xam-xam damaa bëgg dégg xam-xam toll ni yéen dama capté non non non capté woo dara yow nga la ngay yëpp ngay wax ni li ngay wax ni yëpp c'est bien bo bu dee xam-xam la saa ragalu ko waaw non non non defal a rek waaw xaaral xaaral formation beeg na mu juddoo weeg. Malick daal ma wax la la la déglu jaay déglu a mu daan ma. Malick diplôme bi muy wax ni waaw dafa dem Europe doon Moodu Moodu yi la centre pour ngay balee foofu ci kii bi fa nga jëlee diplôme bi loolu la rek. li li nga li mu ça li mu développé développé fii yëpp. ba ay noro nag ay kii wax nga ni mu juddoo ak lépp mais ñun ñu ngi biir Sénégal. Mhm. formation bi mhm. xam nga ko pratique bi jàll nga ci. ñëwal ci seen jafe foofu ci Europe mais dama bëgg pas jafe-jafe non may ma jafe-jafe waxuma jafe-jafe mhm. dama ni mhm. ni ba approché malade mentaux yi ba mën a nekk ñoom ba mën leen a kaasal seen droit mhm. man loolu laa bëgg nga wax ñu ko bu nu paree ñëw jafe-jafe saa bàyyi ma non loolu loolu <laughs> loolu xam ne bàyyi ah. loolu lu yomb la waaw mais parce que li ngay tourné nii yëpp vraiment tourné wu ma waaw damay expliqué <laughs> waaw expliqué nga léegi nag léegi da ngaa fàtte marche ansu ba ansu <laughs> ñi jaar nii ñi jaar nii ñi jaar nii ñi jaar nii bu dul leen organisé bon léegi <laughs> waaw loolu la ñu bëgg quoi parce que yombul nga approché malade mentaux yi ba am ñoom relation yi c'est très facile ah. cest à que boo moo moo moo tax xam nga euh, sooy def benn mbir da ngay jaar da ngay jóge ci commencement bi léegi xam nga par exemple boo amul benn notion ci loolu nga gis kenn par exemple Sénégal benn malade mais en général dañuy sol ay yëre yu tilim et tout ça n'est-ce pas mm. nit ñi ñoo leen waaw léegi man dama ne nan nga def ba approché leen fii Sénégal Sénégal man mooy parce que yombul ñoom dañu am fu ñu nekk fu ñuy fajoo. waaw kañ loolu laa bëgg dégg. foofu ñuy fajoo. Mm. Mm. pour ma def sama sélection. waaw kañ fa laa dem. très bien nest la ñuy laaj. gis seeni seeni docteur. docteurs yi tànnal la. tànnal ma ah, ñi nga xamante ne dëppoo nañ ak critères yi nga xamante ne moom lañ laaj parce que ñu ay critères yu exagéré mm-hmm. dañoo laaj rek juste ñu am ay trouble dañuy wax trouble psychotique ah. trouble psychotique ñi nga xamante ne par exemple dañu toog di dégg ay voix wala di di waxtu wala ñu am ay. trouble trouble bipolaire nangam nangam. voilà loolu noonu nga def ba constituer sa équipe. waaw ban année la woon loolu. non loolu loolu loolu ren jii lañ judd la ren lañ judd 2018. année bii la waaw. waaw léegi. Mhm. ayca saa dafa mel ni am na parce que ñun li nga xam ne mooy mhm. gouvernement bi léegi ministre des léegi yéen bu ngeen waree fubali ji kii parce que bétti defe naa dañu war yamale mhm. parce que Sénégal gi ñun ñëpp ñoo ko bokk ki am feebaru xel dafa am feebaru xel mais sénégalais la mhm. léegi bu fekkee ne bi am nañ loolu ñu war ñoo représenté ji ca bitim réew ci coupe du monde mhm. ministre des ban taxawaay la ci am ok est que wax na leen wax nga leen ko bien sûr yëg nañ damay wax mbëri bi ah. événement bi ni mu hmm. toll hmm. laa bëgg wax événement bi c'est un c'est une coupe du monde ah un xamante France mu ngi Japon donc euh, ay Chili. fu muy amee ji. déglu ko Rome lay amee. Brésil bokk na ci euh, bokkul. ah kon des naa mag. donc Brésil bokkul xaj na qualifié wul xaj na euh, xaj na qualifié wul <laughs> donc Rome lay amee. Hmm. mi ngi mi ngi commencé le treize. normalement le treize mai. mai waaw ñoom amaguñu billet. n'est-ce pas. amuñu luy seen problème. voilà ñun bind nañ vraiment fi ñu war a bind yëpp bind nañ fédération même. même les partenaires italien bind nañ fédération. bind nañ fédération. faale nañ. Eh ministre des sports. oh là là Matar bind nañ ministre euh, de la santé. Eh n'est-ce pas donc euh, dem nañ sax ba bind président de la république. Mm. dem nañ ba bi aussi bon comme comme comme. Euh, Marème Faye aussi dafay dafay def ay ay ay ay. Mm. def social bu baax fii si Sénégal. Mm. bind nañ ko ñun dem nañ sax ba foofu ba ñu recevoir ñu foofu biir euh, foofu ci lan lañ leen wax fondation bi alors ñim fa fekk mm-hmm. ay nit yu baax vraiment mm-hmm. ñu teeru ñu waxtaan ak ñun mm-hmm. apprécier mbir mi ba pare ñu ne jël nañ dossier bi ñoom dinañ ci def lu man mën dina yegg ci ci Marème Faye incha allah mais jusqu'à présent la première dara bon ba léegi vraiment dara yéen ngi déglu waaye nag man maa ngi am yaakaar parce que man noon laa mel bon maa ngi am yaakaar ba léegi parce que dama gis benn kilifa bu mag mooy Mouhamadou Makhtar Cissé. Mhm. DG Sénélec. ma mhm. expliqué ko mbir mi. Euh, li mu njëkk a def moom mooy parce que situation bi dafa dafa doyoon mu ne da ngay anticiper sur les passeports d' abord parce que dafa am ñu amuloon passeport moom mu jox ma. ne ma ak visa yi aussi. mu ne ma waaw mais xam nga loolu moo mujjee. bi waaw yooyu moo mujjee mais. il faut ñu am am passeport parce que passeport Sénégal deux trois ah, jours léegi léegi yomb na moom voilà léegi bu ñu amee ba ba pare mm. euh, donc mu koy remercier moom euh, Mouhamadou Makhtar Cissé d'accord d'accord voilà léegi mm. euh, waaw rapidement ñu dem parce que jël nga temps bi yëpp dëgg la dëgg la li nga wax am solo li ma dafa am solo ñii ñëpp li ñu indi am na ku ci nekk sa soxla la man li ma indi laa na la waaw ay xam nangu nañ ko kay xam nañ am solo la ñu jàpp ni yéen ngi xaarandi moo xam ci côté billet la mm, moo xam passeport yi pareegul wala passeport yi pareegul mais passeport yi dès lundi dinañ ko dugal bu soobee yàlla dès lundi ngeen koy dugal yéen lundi dès lundi kañ ngeen xam qualification bi xaw ma invitation yàgg na waaw lu leen tere woon di jënti passeport yi dañ doon toppatoo am nañu amuloon carte d'identité et tout xam nga d'accord mais finalement lépp yemb na. lundi di ngeen déposé ñëpp passeport passeport passeport deux jours. loolu moom garaawul pour affaire visa yooyu mais problème bi mooy problème mu billet bi. les mooy la ak ñaata équipe équipe bi onze. non équipe bi dix lañu. dix lañu la. ak yow ak waa la délégation. da ngeen am staff dañu am staff. dama ànd ak ay techniciens yu mag. Ndiarka se c'est un entraîneur ñëpp xam. waaw Ndiarka bu Guédiawaye. merci ak euh, coach euh, Aziz Dieng. Mm. Ah, ma koy nuyu de passage mu ngi fi n'est-ce pas ak maanaam. kon daal yéen mbir mi lu professionnel la. fi mu nekk nii daal yéen problème mu billet ba ma commencé. mooy problème bi Sénégal la ñëpp a bëgg a dem Italie. n'est-ce pas j'ai eu des sollicitations mm-hmm. de par-ci par-là nag naan xoolal am na ñoo xam ne sax wér nañ amuñu feebaru xel mais dinañ fexe kii pour dugg ci wut kay gars yi xam naa leen noonu mi ngi maa leen naan mais ñun dañu sérieux dañu li ñuy def dañ ko bëgg n'est-ce pas parce que ñun dëkk ñun ñoo ci ñàkk suñu xaalis ñun actuellement ok dinañu ñëwaat ci yow ñu jàll nag ci ndongo Thiam ndongo nag euh, merci non jar a la mais hmm. xam naa dinaa la laaj. yàgg sa copain ndax dem gis nga Ansu. Ansu maana John. non Ansu maana. waaw bàyyi dañu yeggale fee. amul ñu koy euh, ñuy sal li muy def parce que c'est pas facile. aussi ñu ñëw ci euh, Ndongo Thiam Ndongo. Mhm. Euh, yéen xam nga tailleur yi toog nañ fi sonn ndax nee nañu chinois yi dañoo bëgg a dugg ci tay baas yi. Mhm. yéen it yéen ngeen yuuxu. Mhm. ndax ne ngeen dàll yi saag yi chinois yi sonal nañ leen. ma bëggoon xam rek euh, balaa nga ci egg si seen association bi kañ la juddu. Mhm. waaw collectif euh, ñooy coordonné du Sénégal et de la diaspora collectif waaw collectif la mhm. collectif bi yàggul mhm. euh, biñ ko doxeek biñ ko waxtaaneek ak biñ ci njëkkee def suñu sorti lépp ci ay xam naa normalement quatre mois cinq la yoratoon ah ci at mii la waaw ci at mii la te jóg bi li tax ñu jóg aussi kon loolu ñu naan on a marre dañu dañu dem ba moo tax ñu jóg mais ude mosut mars place de l'obélisque waaw su ñu demee ba def ko 23 mars. Hmm. dañuy dem ba xam ne lii trop c'est trop. Hmm. ñu ne nag léegi ah nit ki nag boo koy dóor dafa war a jooy. Hmm. ba nga xam ne kii liñ koy dóor saf na xanaa di nga bàyyi. ndaxte chinois yi ñu ñu indil fii ñun dañu am concurrence déloyale boo xam ne nii kooku moom c'est impossible mënuñu ko te duñu ko def. xalaatuñ ko sax. parce que président de la république du Sénégal muy monsieur Macky Sall dafa dafay créer emploi des jeunes. mais dama foog weesuwul tëju sa biir nekk bind sa décret. génn hmm. ñëw jox ko kii saa ñoo gën ko dama lay dimbali. décret wu hmm. dama lay jàq ah chose pardon sa décret ou arrêt n'importe quoi. est-ce que bu jëm pour ne da ngay dimbali ci investir. ok ci investissement yi muy def nii. Hmm. mi ngi doon dem chose euh, indi ay chinois ne dañu fi jóg ubbi benn confection couturière bu mag fii Sénégal. Ah, ah, ah, ngeen wane seen bopp. damay joxe exemple. est que moom concerté wu na ak tailleur Sénégal yi est-ce que xam loolu du rey tailleur rek. du raytee rek de man urée bi sax dama ci bokk ak yow mi ak yow ak kii moo tax ma ne secteur artisanal bi secteur artisanal bépp laay waxe foofu laay waxee laa expliqué Sénégal bu ñu bëggee mu émerger Sénégal émergent googu ñu wax mhm. fi ñu jëm fi ñu war a jaar nañ ñu ci bool bu ñu xeeb kenn mhm. artisan yi ñun ñoo xam sunu demee ñun boo tëjoo sa biir rek def sa arrêt génn ne da nga may dimbali yaa ngi may lor da nga a ñëw laaj ma man mhm. noo may dimbali foo war a jaar ak ñun ñun Sénégal ñu xool soixante euh, chose mun naa quatre vingt quinze pour cent sax la ñu wax euh, de l' économie du Sénégal c' fii Sénégal te ah, ñoom seen i chiffre joxe yow normal la est seen i yu mag ñoom ñoo ko joxe hmm. yaa ngi dégg ah man 75 laa indi woon sax mais kenn ci ku ci ñoom comme intellectuel moom ma xamal sax ne ma da baax sax ne 75 c'est 95 pour cent te loolu duñ ko weddi ma jox la ci exemple fii koo fi dugg sa biir kër Euh, bu amee fonctionnaire benn la bu tax ñu waxi fonctionnaire xam na borom fanweer yi ni fay cent cinquante mille ki deux cent mille ah mm. trois cent mille loolu du fonctionnaire de mm. appartement du lekk du naan du nekk ci train de vie bu normal ak njabootam ndax cent mille lay des mm. nga fay courant ak ndox te ñun suñu métier yi ñuy xeet dañ ciy def yooyu yëpp di fay ay impôt si luñ ci def ma wax man mii di wax yow benn naa ay xale di leen jàngal métier kon maa créer emploi Mm. sama morom yi ko dañuy exploité xale yi nga fi nekkee waa xaar ba ñu noonu exploité yu ma leen xamalu tax mm. Mm. maa ngi leen di jàngal métier di leen faj bu ñu feebaree seen yaay di leen faj seen papa di leen faj di leen xottil di leen solal e yor jabar ak ay doom ñuy jàng ma seen éducation ci sama métier bii ma yor yor ci sama teraanga taxawaalu mënoon a taxawaalu ji te defuma ko kon man exploité ma ay gone bu tabaski jotee ma solo ko ba mu baax may ko xaalis bu dem jëndal papaam ak yaayam sax xar te batugu ko ndax moom beroo gut kon yow métier mi dox na. waaw xaaral ma ñëw non yow amoo jafe-jafe waaw ah. waxtaan ma <laughs> yow nag wax nga bay dugal bopp ci. pàcc na mais dañ koy. yàq dox na bétti moo tax ñuy bëgg a dee ñun. waaw dama ne. li tax dàll yi nag. métier dafa baax dafa dox si. dafa dox dama lay wax leen dafa dox ah. dox na xëy. pour xam ko dugal ci loxoom laa bëgg. waaw mu jàppale ñu ci dafa dox de. Mhm. ñoom xamuñu ko informel moo yore Sénégal ak menuisier baak soudeur métallique beeg tailleur beeg cordonnier bi et tout ça ñooñu ak tëgguuru si hmm. chinois man dama ne dañu ne Sénégal émergent wala chinois émergent laa bëgg a xam loolu laay laaj euh, président Macky Sall lu mu bëgg benn point la mu tontu ma ci euh, chinois émergent la bëgg wala Sénégal émergent lay wax c'est les Sénégalais qui vont émerger le Sénégal mais ce n'est pas les chinois qui ah xam nga chinois bu li nga xam nga Sénégalais yi chinois yi bu ñu ñëwee jaayuñu chinois Sénégalais yi la ñuy jaay lan moo tax Sénégalais yi préféré marchandise su chinois bi que yéen seen marchandise. moo fa ok point boobu baax na ma tontu la foofu la tax sénégalais yi préféré ko nee nañ la xamuñu woon chinois ñun la ñu xamoon ñun ba ñu fi nekk mos ñoo jàmbati daal suñu jigéen ñaa ngi ni toog dañuy sañ sa lu rafet. Hmm. dañuy sol lu gën te la ñuy sol. Hmm. Eh, sénégalais yi bëgg lu yomb googu yor ñu xaalis dafa métti dëkk hmm. seen jëkkër yi ci yëpp waroon am teraanga di ko jox ñu daan jënd lu cher ak baax amatut chinois daal li jaay ñoom sax duñ ko sol bu ñu koy jox ñun lu leen teree ngeen wàññi prix yi c'est que mooy seen problème ak chinois yi loolu mën na nekk ci kaw leen waaw sunu commerçant yi matière première bi ñuy liggéey yëpp jugal fii c'est exporté dañ koy jëlee euh, Europe c'est importé dañ koy jëlee Europe mu ñëw fi ak ak euh, di dugg si fii hmm. nañ wàcc ji taxi chinois yi seen daal yi ñuy concurrence ñun ci réew mi état Sénégal dama ñaan président de la république bu fekkee dafa bëgg dimbali ndaw ñi bëgg am deuxième mandat bu set wi bu rafet sans ay discussion pour mu jàppale ndaw ji day wàcc wax ak ñun tailleur yooyu di jógee Kigali di jëw ne leen arrêté basta bu dugg Sénégal ne ko am naa ay tailleur bu ñu ñëwee xam nga créer emploi googu ñu koy wax xam lan lañ koy gëmloo ñun ay ouvrier ñoo xam ne ci terrain bi dañuy ñëw jal junniy tailleur ci butt ba ñuy rak journée 3000 lii ma sol ab yow la fi indi wala wala yow yow uude moo la tax a jóg ak dàll wala tailleur ma tax jog jóg mais yow daf mel ni tailleur ngay xeexal déedéet ki daf mel ni xaw ma Moussa Mbaw wala Kiin Mbaw wallaay non non man cordonnier laa dama ñëw fii ci turu cordonnier yi dama nekk ci débat bi a bàyyi nga cordonnier yi nag fàtte nga leen dama ñëw ak dàll lay sol ci kaw laa jógee di ñëw damay ñëw dama bëgg dafa am loo ma laaj li tax chinois yi nga ne dañu bàyyi lu yombalee sénégalais yi bàyyi lu yomb suñu bagage yi dem di jëndi chinois yi lu yomb ga waaw li ñuy jaay dara baaxu ci ay synthétique la maladie sciatique la leen di jox suñu jigéen ñi kenn mënatul sol talo depuis ñu dugg ci daaldi chinois yi seen bagage yi ndax bëgg lu yomb googu noonu ay jafe ay jàngoro la leen jural ay ordonnance yu cher waaw jàngoro jàngoro eh, daal nan la indee jafe jàngoro la wax waxuma la jabet de jàngoro seen daal yi plastique la mbuus man li may sol der la de la république mën na sol lii man bala ma doon kontaan ci Sénégal président de la république dugg ci at atelier cordonnier di jël si commande dàllam wala jabaram wala cadre en euh, euh, benn directrice de société ou directeur de société di jël si commande am comme ni tubaab yooyu ñuy xool di roy ci ñoom ni ñuy doxee ñoom ñu développé ci noonu ak aussi président la dugg si ci atelier tailleur yi di jël si ay ñaw ñu koy wane ci télé bi nañ doon jënd xarum tabaski koy wane di jënd li ñu moom Sénégal mais mi ngi koy sol mais mi ngi sol yëre olof ñu koy gis waaw ndongo bu solee yëre ñu déglonte waaw nañu déglonte yéen depuis combien d'années chinois yaa ngi centenaire mhm. presque am na ci kër yu bëri yoo xam ne ñoom dañ ko sax jënd faf mhm. di fay sage seen marchandise mhm. di liggéeyloo ay sénégalais. Mhm. gis nga gis yaakaaru leen ni. Mhm. secteur bu mhm. fekkee da nga ci am concurrent. moo xam loyal déloyal. yéen a xam nu ngeen koy tuddee. ba chinois yi ñëwee. temps boobu ba léegi ñu ngi fi. waxu leen ci dara. yaakaaru leen ni seetaan bi ngeen seetaan. sénégalais yi nag wax dëgg yàlla ku ci nekk boo demee bourse bu mu munti doon di nga ci gis sa bopp. Mhm. ci euh, centenaire. Mhm. wala fu chinois yi nekk. Mhm. ku dem rek loo mënti yóbbu ak nu mu mën a toll rek. di nga ci gis sa bopp di jënd la nga bëgg jënd. di nga ci mën a sañse muy xam muy dàll wala saat. yéen aussi est-ce que jotul. ngeen rendre seen produit yi accessible accessibilité bi mooy lan. ngeen yombal ko. ngeen wàññi prix bi. même bu fekkee da ngeen def qualité. bu fekkee ni sénégalais dañ koy jënd te mu moo xam croco ngeen di def moo xam beneen façon cuir bu ngeen mënti def mhm. est-ce que yéen tamit seen liggéey accessible na mhm. ci sénégalais yi ok foofu laa dëkk bi dafa metti accessible na ci sénégalais yi non non waaw xaaral ba ñëw noonu dañuy waxtaan dañu daal mm. yu uudee ñun mm. am na des mille cinq cent mm. ba quarante mille dégg nga wax bi bu baax soo ñëwee nag portable bii xam nga ne doo dem mukk ci marché di ko jën sept mille portable sept mille am na boo ñëwee ci porte marché bi portable bii nga ciy mille sénégalais loolooy seen problème mais ñun moo ne ñu ngi jaay ay étranger tout pourtant suñu njiit bu ñu xamoon ñun li ñuy représenté ci réew mi fii. may ma tuuti waaw may ma tuuti may ma tuuti boo nee ñu ngi jaay ñu ngi jaay étranger yi d'accord naa. baal mais dugal village Mbédioum la fa nekk ku ko liggéey du uude. waaw mais da ngay yëkkati saagu koro ko ñun la 300000 francs fu ngeen ko teg. waaw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xam nga village. ah xam ah, voilà xam nga koo xam da nga ne village artisanal non non xam nga uude uude xaaral uude uude la dafa am lu ma koy ah, wax. waaw cuir yooyu noonu ñu lay jaay noonu ñoom waa village artisanal. waaw cuir yooyu xam nga lu ñu ko jënd yow xam nga qualité cuir bi yéen daanaka ñun ay sénégalais africains xam naa qualité cuir mais dama ni dafa jot tubaab yaa ko xam lii grand bi di wax kii sénégalais mën a consommer local def na French kii sëñ bi dañuy waxtaan ma ne moom xam na fa ñuy defaree cuir yi xam ne cuir yi fii lay jóge suñu màggal yeeg suñu gàmm yeeg suñu kor yeeg tam xarit yi ñuy def xar yeeg nag yeeg bëy yi ñuy rey fii der yooyu la ñuy tekki conteneur di ko jaare ci suñu port bi suñu autorité yëpp di ko gis nii de muy ay milliards yi milliards di dem mais pourquoi pas bataa ngi ni ñu tëj président Macky Sall jël ko ubbi ko day créé am am emploi baal ma ñëw saa baal ma ñëw baal ma ñëw baal ma ñu rek mais da ngeen ma posé ñëw bul ma grillé. waaw quoi xoolal. et bata bii bu ko jëloon defar ko ba mu rafet wala mu xotti ñu ca pôle de Diamniadio bee benn pôle boo xam ne ni ay tànneer lañ fay ñu fay traité cuir yi nii billahi wallahi 6000 personnes mën na mën na leen faa dugal ñuy liggéey ay góor jigéen. di jël po yi di ko traité waaw fu ma ba léegi tontu woo foofu dama ni la. xam nga waa déglu rek xam nga assisté naa ci ba tàyyi ci jaay yooyu des tubaab day ñëw wala koo xam ne étranger la prix ba ngeen koy jaayee sax dëgg la du bokk ak ngeen di jaayee sénégalais dëgg la ñuy def mais dama ni la mhm. est-ce que jotul mhm. ngeen gën a yombal seen loxo ba tolloog chinois yi waaw déggoo baat bi ma la nee naa la prix yi chinois waaw ak ñun mënuñu nekk chinois yi bokkuñu qualité bu ñuy liggéey nee naa daalam da lay jox feebar sama daal da faj déggoo baat quatre-vingt mille francs ak jigéen ñi seen habitude yaa metti seen oom yi waaw seen waaw sol talon ñoom ñu laaj ay sol bu wàccee émission bi ay carax mhm. nañ fi boobu ba léegi xeexu leen leen tax ngeen toog ba heure bi ñi ngi doon xeex yaa ko yëgut baal ma ma ñëw ñi ngi doon xeex mais demu leen ko ci télé ah, man dégg ma ne le mars rek def nañu euh, mars fii place des nations de l'obélisque man maa ko dirigé woon ak ku ñuy wax Omar Fam mm. ak Assane Cheikh Diouf ñoom mm-hmm. et la fa nekk sept cent nangam personne na fa wàcc GMI yi ñuy yónnee dañuy dolli waat renfort ñu def marche bu pacifique bu rafet taalu ñu pono sànni wu ñuy xeer sensibiliser sénégalais yéen yéen a ñu mën a jàppale aussi kon léegi yéen lan bu tata bu kaar chinois moom du déglu xool ñu wax la waaw yow li expliqué nii yëpp bañ nga chinois bi jaay si ci réew xanaa kon yow pare woo pour jaay bitim réew jaay bitim réew bien sûr nag loolu léegi lu tax nga bëgg interdit chinois bi nag mu ñëw ci dëkk bi ah, nga bëgg yow jaay baal ma répondre la pare naa pour jaay bitim réew loolu laa bëgg sama réew président Macky Sall waa Chine faluñu ko moom ñun ñi la war a dijjanti. non non comprendre li ma la wax. dégg naa ma la mooy sa gan de. non ma déglu. saa ma déglu ma ñëw la mooy seen problème Chine boo fa demee dañu organiser. Mhm. yaa ngi dégg. Ah, mhm. parce que da ngay gis ay société yoo xam ne ñooy taxaw di defar daal. yooyu du ay. pàcc pàcc ay cantine yéen nag ay cantine cantine ah. cantine loolu mooy seen problème lu tax organisé wu leen pour nekk benn genre kii ba ma ma ñëw ma jox état yoon wi nee naa booy faj nit da ngay ñëw ci moom xam nga ni kii ne ku baax kii ne dafa jël ñu feebar feebarum xel ngeen baal ma ci wax ni ko olof di wax pour ñu xamul ñu xam bokk dof nga jël ko waaw yombul dafa leen jege nit boo ko bëggee faj da nga koy jege président Macky sal bu ñu bëggee lijjën loolu mën na nekk ñun looy suñu yoon ci bu fi ñëw moom wóoratu lijjën ay chinois ah sénégalais yi la war a lijjën mais seen subvention bi ñu leen di lijjanti génne na xaalis boo xam ne yéen ko moom baal ma wax la ñu ah. wut egsi eh? wut man yaa ngi waa kon xaalis dañ koy dégg rek ñun bu ñu woowee ñu wax ndongo ndongo ñu koy réglé ndongo boo bëggee ndongo bari wax buñ lay wax danga ñu laaj nga ñuy tontu. waaw dama ni. nga xëy ak da leen ëpp coow moo tax mu jiite leen bu nee subvention bi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. xaalis bi moom la yow yaa may déglu laaj nga tontu dëgg ñun xaalis wallahi al azim dégguma xaalis ku ma ko jox na ñu woote ci tey ubbil antenne bi mu ne moom jox na ma xaalis. yéen ñi la laaj xaalis yéen xaalis bi ngeen dégg ñun artisan yi. bokkuñu seen secteur déglu ma yow li nga ci dégg sax yéen informe yéen journaliste yi ñun dégguñu ko ñun artisan yi eh, ko moom xaalis bi déggu ma ko de moom mii ma ko wax yéen a ko fi wax yéen ñaar ah moom ma wax xaalis ma ak yow ma ci dara mii moo ko wax déglu ma bul ma ci xaalis dégg xaalis subvention bi man dégg naa ko voilà te ah? subvention bi ñu leen alloué. man dégg naa ko léegi. wax ñun dañu koy dégg mais gis ñu ko. yow yow yow jaar su war a jaar grand dañuy waxtaan ma ñoom xam nga Sénégal dañuy waxtaan ñun ay sénégalais lañ ñun duñ ay guinéen duñ ay malien duñ ay camerounais. ay non non li ma doon laa wax. dama ne ñun dama ah. fu ba jëm. loolu lañu Chine. dañoo bëree bëri macha allah. kaar bu leen catu ñooñu catu leen jàpp xool seen réew. <laughs> Eh, jox ko plat yi <laughs> seen réew xoolal liggéeyal leen liggéeyal leen ba xajatuñ fa de ah président bi daa muus de mu ne xaaral nag ma tasaare leen ci àdduna damaa sama njaboot bi xoolal ñu dem wutiwaat ba réew yi indil ma li ñu yor yëpp fii chinois yi ñoom seen jiit leen a fan tàcc leen loolu mais kay ma wax la xam nga ndongo seen jiit dafa liggéey baa ma ñëw dafa liggéey <laughs> ma bëgg suñu jiit yi xool ca ñoom mais ba ba ñun ñun on est ndongo matoor nous sommes un indépendant moo ñu ëpp mais on est toujours dépendant. non non loolu moom mooy sama problème. waay waxal ndongo yaa war a wax. yaa ñu saf ci indépendant la ñu nekk nee nañu dañu indépendant. lu ci xam gars yi eh, wuy dañu indépendant la ñu wax mais on toujours dépendant. mais toujours dañuy topp ci réew mu ñuy dimbali toujours dañuy topp ci ku ñuy sarax waa ndongo ba pare da nga am indépendance ndongo est que yow public bi ngay waxal wala téléspectateur bi ngay waxal ndongo xoolal <laughs> leen ndongo waay waa léegi dama bëgg rek balaa ñuy tënk ñu dem bala ñuy dem fii ci ci ci ci euh, Arona ñu ñëwaat benn mhm. question mhm. xam nga euh, benn côté dinaa d'accord ak yow xam nga lu tax mhm. sunu sunu nguur yi sunu nguur gi ñun dama defe ni euh, ñu baal ma ci kàddu bi dañu xaw a yeb sénégalais yi. parce que boo demee États-Unis chinois du fa dugal lu bon. waaw nga dem Europe. waaw chinois du fa dugal lu bon parce que normes yi dañ koy respecté. mais Sénégal. Mhm. bu fekkee bu ñuy dugg ñu yombalal leen ko. Mhm. yéen kañ seen wax état ngeen war a waxal. état laay wax ngeen waa déglu rek waa déglu rek. tamit li ma leen di meree rek mooy. Mhm. seetaan bu yàgg bi. kese la. Ah, c'est ça qui chinois yi fi mu nekk nii gënoon leen nekk sénégalais de fi mu toll booy mo ñu koy nangu léegi fi booy wax olof rek bi ko moom fii Sénégal boo fi ñëwee boo waxee olof rek d'accord yow lañ gën a ni léegi dinañ ñëwaat ci ñu dem ci Arona Arona yaa ngi ci rab bi foo cosaanoo big road big road yow booy bi eh, tuuti bi naan big road ah, big la ci li dem def moo tax mu ne big big eh, may ñu eh, ah waaw waaw big comme ça la ilaha illallah <laughs> allahu akbar ah. eh yow mbaa bi eh macha ah, allah la ilaha illallah la ilaha macha allah big waaw saa big nga nag saa big du big bi nga bi ñu ko déggee quoi waaw du big boobu ci jëmm waaw non du big boobu quoi kàllaama yi muy génne mooy big ah. Ah, kàllaama yi kaddu yi mooy ngand quoi hmm. kaddu yi ngand ngay génne d'accord kañ nga dugg ci rab bi ay 2006 2007 boobu ba léegi loo ci def dooroo ci fay woo ci ndax siiwoo siiwuma fii nii Dakar Gosaas la siiw waaw mooy problème mu ñi ci région yi mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. d' accord nga ne siiwoo Dakar. foo siiw Dakar xam nañ ma. Mm. dëkk yi wër Kaolack xam nañ ma. loo mm. mm. fay def ay concert wala la. damay damay joué damay organiser concert Kaolack. dañ may invité ay concert dëkk yi wër Kaolack. rab bi nu mu dee Kaolack gis nga gis nga gis nga Saalum Saalum. gannaaw waa Yaana Maar man pour man amul beneen rappeur. amul bu leen parce que aussi yéen seen problème la ci biir région yi lu tax des fois bu fekkee da a am lu baax wala ngeen def des produits de qualité mhm. du ngeen wàcc si mhm. Dakar fii nga mhm. xamante ni producteur yaa ngi fi. et puis visibilité bi nag ñu ñu bëgg ko ñu bañ ko fële pee. lu tax cest euh, man nekk ci yoon. moo tax ma ñëw fii tey. ok cest à boo nekkee ci benn biir. da ngay bañ a yàkkamti quoi. ak gëm sa bopp. bañ a coggatu kenn man foofu laa teg sama tànk quoi coggatu mooy dunguru. waaw man du ma moo tax quoi. cest mooy mooy tax ma dama gëm sam bopp nekk fi li ma a nekk. Mm. du ma dem ci kenn ne ko jàppal fii wala nangam ak nangam quoi. damay gëm sam bopp nekk ci job bi. en mu te xam dafa àgg. Mm-hmm. ci yoon bi mu jaaroon. yow mm-hmm. boo fa jaaree dara am sax yàgg yàgg. di waaye yow mënoo rab problème mu société yi. Mm-hmm. nga rab dund bi seer na wala nga rab leneen leneen xale yi ñu ngi leen di sàcc. wala wala euh, consommation locale. wala yooyu waaye nga rab di di di clash si di job danga bëgg buzz danga gis mu am buzz jamono ji mhm. nga bëgg buzz jëm ca moom wala lan la non non buzz moom bind naa sax sound boo xam ne mi ngi tudd bëgguma buzz bëgg nga buzz comprendre nga bëgg nga buzz bind boo xam ni dugal nga mais mi ngi tudd bëgguma buzz mais lan moo tax sa bi su ma cest ñaari question la kii dafa lu tax non non non lu tax nga bind bëgguma buzz waaw mën naa la ko rabal nga dégg ko a rabal sama boobu génn génnagul mais dama la koy ah, freestyle dama ne bëgguma bës ma ni nga bëgguma bës e yow ma ni nga bëgguma bës ku am bës baal xel bës sa bës e yow bës sa bës e yow bëgguma su bandi mandi sàcc mani bëgguma bës su bondi gondi tëddee gone bëgguma bës su rate seene dugal poul mané bëgguma bës su bëgguma bësu def tuuxiduna bu ne eh. bëgguma bësu mbër mu bëri defet cuune eh. bëgguma bësu alal tax ma rey puune eh. bëgguma bësu feccikat cër mu wone bëgguma bësu fenkat dëkke xonet bëgguma bësu ñuy sàcc yi le gone hmm. bëgguma e yow bëgguma e yow bëgguma bëgguma bëgguma e yow bëgguma bë dëgg ma eggale la ko de ma ma eggale la ko sàndeegi voilà ñanaa la bëgguma bësu kaat kaat bi lëmbee Saalum bëgguma bësu président buy nax réewam bëgguma bësu rappeur buy saaga moromu baayam bëgguma bësu musique saint politique saint bëgguma bësu nit ñi def ma li ma doon fu ma jaar di daw nit ñi bëgguma bësu siw bew ku ma woo ma coupé bëgguma bësu réew xew du ma dem xew dama occupé xanaa xamoo xajal la ëpp bës fu mu jaar ñu ne jana yàlla boo may may bës baal ba àjjana nga daqal ma sama ay nii ma wone ma ay nii ci ñoom urul ay nii boo bëggee bii kaay nii boo bëggee ma àggale loxo de. non non baax na dañ laaj la nga tontu saa ca nga fi ah, ñëw ak neex na dara loo ci wax neex xam nga man li ma jaaxal mhm. mooy da nga tëb tëb dal ci siidi Diop mhm. te Sidi Diop mhm. waa li ñëw ne tas sa waa li ñëwaat mook njolee ndax tas sa layl tasal sama lal xaw ma lan ak lan nga bàyyi ko foofu c'est que ne ajal kuy aawa ajal c'est la ci gën a yàpp kumba ne ma yër li nga yor mhm. <laughs> mais nga bàyyi fi ñoo ñëpp ah. mais daal di ñëw rek ci Sidi Diop dal ci kawam non Sidi Diop Sidi Diop non non Sidi ci kawam quoi. non bës ngay wut non non Sidi Diop daluma ci kawam. Eh, eh, ko waay. waaw moo tax moo tax ah. su ma dégloo son bi di nga xam ne daluma ci kaw Sidi Diop quoi. loo ko wax waaye ñëwal ci son bi tuuti voilà son bi intro bi dama naan. Mm. yow mi yàlla may baat. Mm. ñi amul baat yaa leen di waxal. Mm-hmm. kilifa diina yaa ngi ñuy mm-hmm. xale yu ndaw yaa ngi roy si ñun suñuy solin suñuy waxin. am nañu jox ya am nañu yàlla jox làmmiñ te mënuñoo wax mhm. kenn ku ci nekk ci li nga nekk bis boo dëddoo moom lañ lay seedeel kon nañ leen ko rafetal ca teel mhm. dañ la wax kat yi waxati mhm. kat yi jëfati fecckat yi fecc déglukat yi tey ñu déggati ñu la di nga ah. naan li nga sombi ndax man dama jombi médecin yeeg euh, dañ lu tax moom moom rek nga wax ko saa wax yoon la mhm. parce que daf ni la limal na la fi ñeneen ay mhm. ñoom sekaaw ak gaay yooyu mhm. mais lu tax nga nga nga ciblé moom dong ah, moom la wax ciblé wu ma Sidi Diop ah. la waaw yaa jox ku yàlla may kàddu quoi ngay wax mm. man mën naa la jox leçon parce que dañ ni dëgg puso bu rëy la xala mën na ko far mag mën na ko far mm-hmm. ah. ci kaw ñu nangu ko mm-hmm. mais non booy c'est que def ni mm. xam nga buzz nga bëgg. Mhm. parce que da nga fekk morceau bu am buzz. Mhm. nga sóobu ci buzz bi pour am ci buzz. clash ko loolu rek la. Mhm. non ko clash parce que rap xam nga li rap nga fi leneen lu bari xam nga bétti li wax na la sànq rafetal ko. ne waaw yéen lu tax du ngeen ñëw Dakar mais c'est que ñi aay ñëpp ñëw nañ. xam nañ leen. parce que xam nañ kii nu mu tëddee maar ñoom kër kilifa kër gi. kër gi biñ ñëwee dañoo toj dañoo ñëw Dakar rek. Mm-hmm. dañoo ñëw rek toj express bu Diourbel. Diourbel waaw express dañu xaw ma ex express ci mën a doon mm-hmm. express. Mm-hmm. dañoo ñëw toj. mais est-ce que ñoom dañoo tëb tëb rek ñëw. tojo xam nga ñaata at la. mais yow ñaata at nga wax depuis am na ay kur yu ñu doon bokk. xam nga hip hop tey yoon la bu metti quoi. Mm. xam nga mm. soo amul ku lay jàppale. Mm. ñun groupe bi ñu nekkoon gaa yi dañuy bàyyi dem defi leneen man ma gëm ko nekk di ko xoslu. Mm-hmm. comprendre nga. tey mën naa la wax ci kaar Sidi Diop sama boobu noonu tax ma def ko. waxal damay damay damay déglu Mm-hmm. maanaam musiciens yi nga xamante ni maanaam boo déggee ñu ne Papa Ndiaga Mbaye suñ ko tuddee sa xel xam nga fu muy dem si mm-hmm. mu daan woy muy yeete mm-hmm. Papa Ndiouga Dieng addina kamata jooy luy wéy la da nga comprendre ngay dégg yooyu ma dugg suñ kër rek benn xale bu ndaw ni ma papa roon sa un un bi ku ko moom mu ne la sa un un quoi bi ku la mais parce que wooy bul xam fan la jëm <laughs> waaw booy bii rek ah booy nit booy bi li mu wax dafa garaaw yéen seetlu leen yow boo demee ba xale bu ndaw bu jigéen di nga romb xam sa ee ko yow booy mbaadu da ngay jël sa ee bi di ko kii xale ko bi daan ne xale bu ndaw bi nee sa ee ko xanaa kon waa léegi wuy ma loolu ko woykat woy yow bi fii lañ a jàppee tëj ko loolu est-ce que su ko woykat woy kay mën ngaa romb ay xale yu ndaw ñuy wax naan ah, ee bi ko ko moom mais ne la papa roon moom laa la expliqué wala yow sa xam loola maanaam way way xam nga way la saa njóogu saa déglu ma yow de booy bu ma dëkkoon ak yow dinaa def enquête ci xale yu ndaw yi nekk dëkkoon ba déglu ma eh, papa doon sa eh bi ko ko moom expliqué la saa di way waa déglu expliqué la saa di xoolal way yéen déglu leen booy wax buñ suukar la booy dugg nga way way wax buñ suukar la déglu booy wax yaa ngi dégg way wax buñ suukar la quoi yaa ngi fi léegi soo ko waxee yow bal la bul xam fi muy dem sa bal bi nag boo demee bay way waxal lu ëpp lu am important lu askan bi mën a jëriñ mm. Sidi Diop suñ kër am na mën na fa am ay fans mm-hmm. comprendre nga. te et puis am nañu ko bëgg ci li muy def. ah booy loolu li nga wax noonu pour drailler wala. c'est vrai que ni booy bi daf na sa aine ku ko ne la sa aine ku bi. gis nga son soo ko dégloo bu baax a baax soo dégloo son bi bu baax a baax. Mm-hmm. di nga xam li may wax bu baax ci laas laas laas. xale bu jigéen la taxawal ci soirée. Mm-hmm. jabaru xaritam xaw ma lan mhm. di ko laaj di ko mhm. laaj di ko mhm. laaj sa collier ku ko moom sa di ko moom bi sa un un moo mujjee sa un nag moom moom rek moo ko mën a wax lan lay wax mais bu leen ko ñaawal ka bu leen eh, eh, ñaawal eh, ko ñaawaluma ko may ñu lim fi wax ñëpp a ko xam saay bu mag a ngoog ñaawaluma ko saay la ñaawaluma ko wax leer na xoolal li nga wax moo ñëpp xam nañ ko ma ñëw xoolal mooy la ñaawaluma ko xoolal xoolal ah ça ma eh, mënu ma ko wax ma bi ah, nga noonu ñaawlu ma jox leen exemple bu ndaw xam nga exemple laa la jox. waaw ah. gis nga bu ma su ma sañoon maanaam ah, la bu artiste war a jël déglu ko. kan lañ ban sama son ma lay wax ne. Hmm. su ma sañoon son la bu artiste yi di jël déglu ko. xam nga la wa bu dee gëm nga xew-xew wi am na looy def na ko xoolaat. yow Secka booy ah, sa flow xam nga booy sa mm-hmm. flow. Mm-hmm. sa flow bi moo dese kii quoi. dafa kaana bi dafa xamul ndax kaanawul xamul ndax kaanawul mm. soo bëggee wax nit ki pour mu dégg la. Mm. doo ñëw bu dee gëm nga ni xew-xew yi am na non non. yow ni nga ko waxee dafa kii quoi dafa bool bool moo tax ma la expliqué dama lay expliqué pour ko c'est-à-dire <laughs> may def son thème su may def def pour kilifa sax mën ko déglu. Mm. gis man su ma demee ba bi may dem bi bind son bi ak son bu ma mënti bind. su ma demee bay bind damay xalaat bigroon buy bind day xalaat kilifa gi kilifa gi war a déglu son bi su ko déglu est-ce que damay sëgg wala du ma sëgg hmm. moo tax man rarement yow kon yow sa musique da nga ko ciblé paay quoi non du pas man dama ay fans pas am am fans mag am lépp boo demoon Kaolack bi ma dëkk. mais mais mais yow au total benn son rek nga am wala ñaar non am naa sept singles. non yu yoo joxe ci rajo yeeg. non sama koñ Kaolack ñu may invité ay émission rajo ay sama. single waaw mooy li ma lay wax yow sa localité rek nga da ngay génn doo génn. waaw mais génn ah, lan moo la la ah, na maa ngi ni Dakar de génn naa maa ngi ni. ah kañ ngi nii Dakar ma Dakar. très man dama ni. non booy booy bi gëree la aya booy. ah waaw. sar gis nga boo gis li wax nii biir hmm. lu am solo laa doon wax biir dagg moo ko wax. lan la xam nga boo gisee ma ne la nga gis ni roon moo moo moo dooj. waaw mu naan son na ko artiste déglu. waaw xamul tax. non kenn kenn waxu yaa dooj. booy gis nga booy bi man mën nga gis loolu yàq dama nga ko gis. gisuñu ko. waxal rek liñ gis xam na saa lu nekk xam lu nekk mooy la hmm. bu dee gëm nga ni xew-xew yi am na looy def na ko xoolaat. Hmm. ana papa Ndiaga Mbaye ndongo loo jar na xalaat. loolu waxoon nga ko sànq Demba Ja jàmbaar ja Ndeye Mari Ndiaye Gawlo jigéen ju mën góor ja Ablaye Mbaye xëy na wéy àddina bëri tolof tolof ñàkk nañu buur ba jolof. ñun ñi fi des di esprit ñu fàttaliku esprit pakoti fu ñu leen di jëleeti. bu dee bës a tax ngay woy baal xel sa teel say kaddu na nga ko wodd waaw ana yaande kodd. ndax boolewoo ci thème bi ko jox waaw ah dégg nga boole woo ci kan. Père Ndiouga Dieng. waaw mais def nañ son bi yow du ci xam rim bi xam ku mu tegu. <laughs> àndut ak rim mbalax la moo tax buñ duggee ci euh, hip hop maîtriser booy ñëwal. door ma beneen flow. ok c'est-à-dire loolu loolu mooy affaire bi mani la mani la. waaw ma eggal la ma eggal la. waaw fi may seen gaal seen. waaw ni oto bu ñu may seen. ni oto bu ñu may seen. waaw chinois yi ñu may seen. oto bu may seen xam nga du seen. man dëkk gumba wala dañoo gumba wala dañoo muuma lu bon ñu saam ci luuma <laughs> ah. déglu ma ma teggi tuuma yaag sa jikko njuuma ah. léegi xale balaa juddu yàqu parents yee njëkk a sànku nga xam nga lu tax tontu ñu carrément bu ngay da nga ñuy lu tax puusoo paasoo demoo dikkoo loolu la la wax avec sept cent waaw sept cent ban année nga commencé nee na 2006 2006 ba léegi section 2006. 2007 benn son 2008 benn son 2009 2010 2011 2012. ñu jàll nag yow booy doo dem. non xam naa ko 2006 ba léegi section la ay groupe groupe yow bàyyil bàyyil. après groupe yi groupe yi gars yi di bàyyi. parce que bàyyil bàyyil man ma suivre carrière solo. matalagut kii de parce que huit son moo war a nekk nekk ci carrière solo bi di ko xoslu di ko xoslu man fi may wax ak yow nii tey. fii fii nii boo nekkul Lion ci ngay def li ngay def doo toog ci plateau bi de. ataaya ah. boo nekkul gaynde ci li ngay def ah. doo toog ci plateau bi oui booy tàccu la lool lool da nga daal booy booy bee aay xool ko fi mu ma jaar oh, saay saay ñu jàll nag ah, landing landing nga ne yow yow yaay lan ci parti kaar leneen loo fa représenté man chargé de la communication la ci parti bi chargé de la communication waaw hmm. hmm. sa tool la ko jox professeur présidente am sa saw si waaw hmm, Euh, ñu bëggoon a xam kaar leneen moom mooy lan man vraiment bëggoon naa toog professeur ba laaj ko ko mais comme yaa fi ne. Mhm. mën nga ma ko waxal. waaw tur wi moom lan la. kaar neen danañ la ko wax comme tey nga jàpp ni sax professeur tey moo taxaw di wax ak yow. kaar mm. neen ci déggin mooy convergence des acteurs pour la défence des valeurs de la république. kaar mm. leneen dafa nekkoon benn mouvement ba nga xam ni mouvement politique la woon mouvement ba dem dox ci wàllu humanisme. Mm. parce que professeur Amsatou Sow Sidibé dafa nekk nit koo xam ni dafa gëm nit. te dafa fonk nit. loolu moo hmm. tax soo demee ba ci faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Hmm. Hmm. mu jiite woon fa institut bi ñu tuddee institut des droits de l'homme et de la paix. jiite na ko ay at ndax li mu fonk nit lu mu respecté nit. car leneen nag pour ma dellu si waat situation parce que politique a ko taxoon jug tamit ndax dañoo gis loo xam ni réew mi da koo manqué. mooy ay valeur parce que éducation dafa nekk loo xam ni mooy doxal réew. éducation de base yaru ak yaraate njàng ak xam-xam dafa bokk ci loo xam ne réew bu bëgg a avancer waru koo bàyyi ginnaaw. Mhm. ñu gis ni nag Sénégal valeur yi dafa commencé naxasaay. Mhm. moo tax présidente Amsatou Sow Sidibé ak tamit ñi nga xam ni jëm na leen ànd ak ñoom mettre en place mouvement politique boobu tey dem ba am récépissé parti politique pour mën a joŋante ci ay élections. ngir mën a apporter. d' moom lëkkaloo wi na fi ak président ba ñu defoon ko ministre conseil lan moo tax moom gedd ba en fait. génn dégg nañu mu ne du gis président demandé na pour rencontrer ko. deux ans ngay nga nga nekk ak nit ki xëy euh, sàññi ko noonu lim koo gisul a tax wala lim dul dégg ay conseil am. non du ma ne lim ko gisul ndax présidente Amsatou Sow Sidibé mooy nit koo xam ni. képp moo ko wax ci télé bi waaw. dama lay dama lay gën a expliquer waxin bi. mooy nit koo xam ni. Hmm. si wàllum lu mu nekk si lu mu mm. xam-xamam si lu mu màcc réew mënul dox sans loolu mm. donc amul ku mën a jiite réew si wàllum droit d'accord yoon nekk jigéen gu njëkk ah, agréé moom fi mu toll nii na lool mm. donc loolu ku mën loolu ku am loolu mënoo koo bàyyi ba muy ànd ak président Macky Sall nag en 2012 yàlla dafa dogal yooyu élection moo nekk élection yu mu njëkkoon a dem Mm, waaw élection yi ngeen ci amati sax yéen. non élection yooyu élection ñu ci am moo tax ñu bokk tey si mu ñu bokkoon si mouvement présidentiel ba. waaw rek chiffre ba dañoo dañoo dañoo. zéro virgule xaw ma. non mais zéro virgule yooyu duñu ko xeeb xam nga sax dañu ko xeeb. Mm, lu parce que dañoo def lu fi kenn deful. li ngeen fi def. mooy ñu créer ab partie politique. Mm. jël ab jigéen. jiital jigéen jël responsabilité. mais loolu yomb na dem jigéen ngeen. waay yow am na fi Mariam wan lii nekkoon fi Parana bëri lañ fi de. ndaw see su ma ko jiitaloon mu daal dem. ndaw si bokk sa présidente Amsatou Sow Sidibé xam nga lu tax. Ah, ndax présidente Amsatou Sow Sidibé. Mm. mooy nit ka nga xam ni dafa feesam valeur am référence. gëm dëkkam weddi wuñ ni am na xam-xam c'est que comprendre li ma lay wax ba tey weddi wuñ ni am na xam-xam. am na ay valeur dégg naa li ngay wax dégg naa li ngay wax. weddi wuñu loolu. zéro virgule. waaw zéro pour cent bi ngay wax noonu am na ñu fi jiitu professeur Amsatou Sow Sidibé te amuñu ko te suñ ko xee mag président Macky Sall su ko xeeboon eh, eh, yéen élection yi leen woon non ñun duñu mës a jël ndaare su neexee yàlla <laughs> ku jëloon ndaare waaye loolu du ma si dellu si loolu passé na ku jël ndaare <laughs> dafa mer du ma si dellu déedéet du ma si dellu parce que kooku ah. bokkuma ak moom fu ñu jongante si wàllum politique mais li mën a wax mooy présidente Amsatou Sow Sidibé présidente Amsatou Sow Sidibé dafa wone ay preuve moo tax ba deuxième tour jotee ki fi nekk actuel président woo ko nekk damaa bëgg nga jàppale ma ngir yàlla ngir ñu ah, mën a ànd mais déglu ko waaw fa laay ñëw rek ñëw ah. du mën a kenn déglu ko ndax président am sa société fu mu nekk dañ koy déglu ndax ci lu mu mën. bétti nee na léegi wax. non non loolu waxin la xam nga ab waxin tamit day laaj dégg-dégg. saa doo wax sa wax te génn ma ci. dégg naa dégg-dégg bi ah. mooy président am sa société bi dafa nekk mouvance présidentielle ñu fal ko ministre conseil auprès du président de la république. muy wax président de la république dëgg. ministre de conseil boo gisut ki ngay conseillé. non non moo ngi conseillé dafa conseillé. xam nga saa yu xëyee yàlla génn téléphone daal di alors ñu ne ko sa secrétaire. déedéet après nañ ko président Amsa Sow Sidibé moom wax dëgg fa yàlla conseil am sax njiitu réew mi ba fu mu nekk nii sax da koy woo di ko laaj conseil ndax président Amsa Sow Sidibé dafa nekk koo xam ne kenn mënu koo. écarté ci dara. mais li tax mu génn kon waa yokkal ñu ci à part li mu expliqué moom li tax mu génn mooy. waaw yokkal ñu dafa nekk ci mouvance présidentielle bi nekk koo xam ne dañ koo fal pour muy wax xalaatam. Mhm. te suy wax xalaatam day wax xalaatam ci liy jëmale réew kanam mais pas ci liy jëmale nit ki kanam. Hmm. mu siy wax loolu loolu gêné ñu mu àndal. waaw c'est comme Dansokho rek. parce que non ñu ñun bokkuñu ak Dansokho ndax ñun dañoo amul valeur moo tax ñu génn Dansokho mu ngi fa ba tey dañoo am valeur. <laughs> waaw leel waaw suñuy valeur. waaye nag day xulóo <laughs> xulawuñu dañuy wax dañuy ah. wax ah. dañuy wax loo xam ni. gëm gëm gëm. d'accord euh, présidente bi am. ñu toog mhm. ci am moo tax tamit loolu ñu mun a toog tey di ko expliquer. parce que tey su amutoon valeur jàpp naa en tant que ministre conseil ak lépp lu si privilège. Mhm. doo dem bàyyi ko fa. Mhm. mais dafa gëm réew mi. gëm ni Sénégal. lu koy jëmee jëmale kanam. mooy wax dëgg ak def loo xam ne loolu la réew mi soxla. parce que ba muy ànd ak président Macky Sall. président Macky Sall dafa amoon programme boo xam ni yoonu yokkite la ko tuddee woon pour askan wi mais mu dem ba moom gisatul loolu moo tax mu ne kon man réew mi lii moo taxoon même fekkee ab zéro virgule nangam la woon moo taxoon ñi ko amoon confiance jox ma ko donc kon te gisuñu ko damay génn mm. dem réew mi xam ko ma mën a demaat tamit waxaat réew mi ñu uh-huh. jox ma ko uh-huh. suñ ko mënee mm-hmm. wala suñu ko bëggee mais yéen yéen a ngi yéen a ngi préparé 2019 da ngeen di Euh, waa léegi. waaw may ñu. waaw ñëwal. li ngeen di def lu garaaw la. acca bisimilah maa ngi déglu. yéen. Mhm. bu leen teg seen bopp gàcce. Mhm. xamul waaw parce que du ngeen jéggi siraat. Mhm. siraat mooy parrainage. waaw. <laughs> waxuma la dem ca mbir ma de siraat ngeen du jéggi. mais mais avant avant ngeen koy jéggi. yéen ak leader nu ngeen ko jàngatee. ñu nag suñu liggéey nuñ jàngatee parrainage. Mmh. waaw moom kat dina tontu. waaw dinaa tontu si li wax. si damay njëkkee si lu mu wax ndax lu mu wax moo. moo gën a moo ëpp importance. moo ëpp importance. parce que sama wax amul importance merci jërëjëf merci merci sama wax amul importance merci c'est gentil maa ngi ko jàngatee mooy. <laughs> ab dellu gannaaw. ab dellu gannaaw gu majeur. loi parrainage def waaw si loi parrainage. Ah parce que soo laalee article 103 de la constitution. Hmm, lu mu wax ñun fac droit la ñuy jàngee dafa ni. Hmm. Hmm. la forme de l' état. le mandat présidentiel. le mode d' élection. waaw mënuñu ko modifier. loolu la ñuy def suñu réforme constitutionnelle bu ñu jugee. donc tey. parrainage si mode d' élection la suñ nañuy falee la. Mm. waaye bu ja bu dee jàll assemblée mu jàll nag. waaw xam nga assemblée ah. man dama jàpp. waxante li fi ne yooyu lu taxoon sax ñun suñu parti politique. ñu soobu woon ci élection législative. waaw jàppoon ni douzième législative bi fi passé. Mm-hmm. tollu amuñu woon tolluwaay buñ mënoon a. que ni treize bi dina tane quoi représenté sénégalais yi. Mm. ba ci treizième bi nag malheureusement looloo si law. d' accord léegi wuyul Sa Ndiogou ci question Sa Ndiogou lu mu wax nag. mooy mm-hmm. du ngeen jéggi. man maa la ko wax ñun danañ matal ba may président ñun danañ matal suñ ko defoon huit pour cent du fichier électoral kaaru leneen dana ko matal ba may président. ay mais yi ngeen génn non dégg ñu tegee ci ci xam-xam. leen pour cent. élection yi ñu génn. donc nan ngeen mën a oh. jege siraat. bonne question élection yi ñu génn. Hmm. daa am li nga fàtte si élection yi ñu génn. élection yi dañuy koo saboté ñun. yéen sabote bi moo leen jig non président daf ñoo daf ñoo ragal xam nga lu tax ma ragal président daf ñoo ragal ragal ñoo tax <laughs> ragal kan ragal ñoo tax ragal parti car la neen kese waa dégg bàyyi ma expliquer la waaw wax président de la République jël si na si ñun ñëw na ba suñu parti di si jël si ay nit pour ñu jàppale ko élection parce que xam nañu ñun ban élection élection législative yi ñu passé ñaa suñu ñaata suñu ñaata nit ñu ñu investi woon suñu liste électorale ñoo génn quatre jours avant les élections dama les partis au pouvoir est-ce que moo leen woo yéen ah dañoo gisu seen bopp ci yéen ku ñu woowul doo dem bañ investi kañ gis nañ fi ñu rallié ba tàyyi te woowu ñu leen bàyyi ngay wax ku d'accord léegi yéen foofu rek ngeen teg da leen ragal déedéet ak fan mais sabotage bi ñëpp gis nañu ko ban sabotage bureau de vote buy ubbi midi hmm. absence fichier non non non déedéet du ma daanu de. toogal benn place xam nga dama daanu ndax ku ànd ak professeur Amsatou Sow Sidibé doo daanu. ah bon ndax dafa nekk nit koo xam ni. yow dafa daal yow intellectuel nga wala. Euh? non non intellectuel la intellectuel nga wala gëwëlu judd am. intellectuel la xam nga lu tax xam nga lu tax. waaw intellectuel da ngay topp sa moomu intellectuel ndax professeur Amsatou Sow Sidibé ah. intellectuel la. waaw loolu moom dëgg la nangul nañ ko. intellectuel bu mag la mais yow. ni nga koy défendre nii dafa weesu politique bi déedéet weesuwul politique bi man ba ma toppee si ginnaaw professeur Anta Diop Sidibé yàggul yàggul non non ba noppi nga ci engagé wu xam nga li tax nga engagé wu ku gis dëgg te xam ne dëgg bi mooy jëmale réew bi kanam da nga ciy topp dëgg dëgg bi mooy yaakaar ngeen rek xaaral rek xaaral rek xam nga professeur waaw waaw moom moom xam-xamam wàcc na lool ci droit ak ci leneen lu dul droit d'accord mais yaakaaroon ni en fait ndax seen bopp la wala ah, dëfale ko seen bopp wala seen parti ngeen ni da ngeen di postuler 2019 bu leen ci dugg incha allah seet leen coalition benn ngeen di dugg bootu leen xam nga coalition bi nga wax noonu mm. ñun duñu ko da ak parrainage moom coalition yi léegi ñu formé wu ku nekk kam ki ngay àndal ñun parrainage ñun parrainage ñëpp mënuñu parrainage tiitaluñu xam nga la tiitaluñu ñu dañoo gëm di sénégalais parrainage de mooy sirat non sénégalais xam ni waaw sirat ñu nekk parti au pouvoir mais ñun sénégalais yi dañoo gëm ni ñoom ubbi ne seen i bët ñoo ngi xool te xam nañ fan la dëgg nekk ak lu jëmale réew mi kanam te ñun ah. jàpp nañu si loolu la ñuy dox kon parrainage duñu tiitam mhm. ñun jàpp nañu parrainage suñu ko newoon suñu newoon deux millions de signature parti kaaf leneen danañ ko am ndax dañuy dox ci dëgg te dañuy doxal réew mi loolu la ñu bëgg loolu la ñu bëgg waaw booy xoolal déglu ma nag déglu ma politicien bu ndaw nga yaa ngi soog a dugg ci politique yaa ngi dégg politicien bu ndaw amul déglu ma rek politicien bu ndaw amul xam nga lan mooy politicien bu ndaw mooy politicien boo xam ni intérêt boppam ma ko taxaw jóg may déglu politicien mooy kuy doxal réew mi xam nga li nga wax nii c'est que damay bañ ngay wax xam nga li nga wax nii waaw politicien yi chaque jour ñu tegal leen fi liñ fi waxoon démb waaw il faut faire très attention waaw parce que li ngay wax nii mën nga engagé wu nii ëllëg si biir laa lay sóoraale te da ngay ndaw waaw xam nga ëllëg si biir ñee sax màggat lañ mën nañoo retraité waaw xam nga ndaw nga xam nga adduna xam nga adduna adduna luy xew ëllëg du nit kaa koy xam loolu dëgg la ñun xamuñu ndax dañuy dund suba mais nag am na droit wax si li ñu nekk tey ñun bokk ñoog politiciens yi yiy wax di waxaat wala ñi nekkoon fii dem parce que ñun fekkewuñ sax ñoom bañuy politique mm. ñun c'est la nouvelle génération ah yow ci professeur nga duggee ci politique non non man yàgg na bëgg politique. mais gisuma woon non mais adhéré woon non duma adhéré xam nga la duma adhéré. d'accord sooy adhéré da ngay adhéré si li nga gëm. Mhm. man dama gëm ni. luy mhm. développé réew mi parti parti car leneen la nekk. Mhm. moo tax ñu nekk si. ok ok président Amsatou Sow Sidibé nag. waaw mooy koo xam ni. réew mi dañ ko delloo. fal ka la ci ñun. non fal ñàkk koo fal sax. danger la wóorul jërëjëf ñàkk koo fal danger la. jërëjëf ak wóorul li dërëm saafu ni dem mm. euh, nañ euh, dem ci ñi nga xamante ne bi ñoo posé question yi. waaw euh, njëkk ki nga xam ni moom lañuy ñuy tuddee. sunu Malick Bitey Malick Bitey. Mm-hmm. ak El Hadj Modou dikkal je vous en prie man li mu bëggoon xam mooy nit bu xelam matul naka lañ ko mën a def loo mu def bàyyi loo ko mu bàyyi loo rawatina comme ni ñu ko waxee équipe lañ soxla ñaar fukki nit ak ñett nga jënd leen jëm ak ñoom bitim réew koo xam ne àdduna ñoo koy daje. nga wax fa kaw ñu et puis un mois comme durée de comp durée compétition bi yëpp léegi man loolu est ce que woon loolu nit wóorul est ce que wóor na yóbbu quoi man loolu bëggoon naa ko ma ci indi ay leeral. yow mi nga xamee ne yaa toogal footballkat yu malade mentaux yi est ce que liggéey ak ay malade mentaux lu jëm si wàllu sport est ce que yomb na te tamit est ce que état yi ñi yi fi nekk ak ñi fi jot a jàll est ce que ñu ngi leen doon jàppale financièrement ak matériellement comme ni nga xamee ne ñu ngi koy amalee ak suñu footballkat yu normal yi nekk Sénégal. ay deux questions pour yow. njëkk bi. Mhm. tout d' abord daf ma dama fàtte leeral que futsal la futsal mooy. football mhm. à cinq. Mm. donc euh, wax naa ne sax dix joueurs la ñu am donc foot futsal la donc cinq euh, joueurs de champ ak euh, yeneen cinq remplaçants. Mm. Ah, d'accord voilà donc aussi yomb na yombul parce que. d' abord maa ngi koy gërëm vraiment intérêt bi mu am ba ba poser question et tout. Mm-hmm. mais comme euh, entraîneur yi nekk si monde bi. Mm-hmm. ay Mourinho ay ay ay ay Guardiola ak keneen ak keneen ñoom ni ñuy def ba créer ay stratégie technique ay ay ay ay tactique ak yu kenn xamul bay entraîner seeni joueurs ñun noonu la ñuy créer par exemple bon pas créer plutôt mais noonu la ñuy référé woo si lu ñuy wax euh, social skills training. maanaam mhm. ay habilité sociale lañ leen di jàngal n'empêche dañuy football et tout ça def ay règlement am na am na ay bon amul hors-jeu et tout ça mais am na règlement am na coup franc am na carton mhm. mais li ñu gën a intéressé comme par exemple bala ñoo commencé dañuy taxaw def présentation di leen di leen di leen jàngal ay mbir yoo xamante ne moom lañ perdre ci société parce que football dafa am ay règles n'est-ce pas mhm. règles yooyu mu am am ay hors ay lii ay lii Euh, ñi nga xamante ne seen euh, seen xel dafa dafa am dañu feebar feebar xel mm-hmm. moom la ñuy perdre dans la société kenn dootu leen boole ci dara mm-hmm. n'est-ce pas bedd bi day dañ ko bedd bi voilà merci la stigmatisation beddi n'est-ce pas moo bi moo ñëwuloon donc bedd boobu ñu leen di delloo nag cër yi cër yi moom mooy rôle yi ñu am déjà dans le terrain yow yaay défenseur donc nga xam ne am nga rôle n'est-ce pas am nga cër n'est-ce pas mhm. ba pare aussi règles yi da lay jàlloo dans les règles de la société mhm. donc euh, d'accord la deuxième deuxième nee na jafe-jafe yi ngeen ci am waaw nguur gi assistance financière matériel non vraiment ñun wax dëgg yàlla man mhm. du ma ŋàññ quoi parce que man j'essaie d'avoir ce qu'on appelle mais dëkk bi nga tàngal de non non non bon enfin étudiant bi sax bu bëggee jot boursam day baare non loolu loolu cest que nekkul li fi nekk rek. mais est-ce que waa léegi ñun ñu laajaat la ko. est que ñu ngi leen di assister financièrement nguur gi kenn jàppale wuñu waaw loolu ngay wax kenn jàppale wuñu sànq leen ko jàppale wuñu waaw mais seulement. c'est tamit dafa dafa dafa. waaw man maa ngi la doon wax Ansu xam nga Ansu. très xam naa ko bu baax. Ansu moom ñëwut jàppale moom nee na woon candidat la bëgg a nekk. waa non Ansu. Euh, en tant que président ASAM. waaw ñoom fi teewal waaw malades mentaux yi. di ci mhm. liggéey liggéey bu rafet. waaw man naaw naa lool mais est a ngi liggéey alors non liggéeyuñu. mais seulement man woo naa ko téléphone mais en su en su association la yor ah. waaw ba mu marché ba lëkkali bétti nag la mhm. bàyyi kii bi de. loolu lu am solo la moom du état. waaw du état. du man man si moom laay laay laay. laay na si jàmbaar la. waaw wax dëgg yàlla jàmbaar la. Mhm. Euh, jàmbaar dëgg mi ngi bay waaram et tout ça mais moom moom dafa yor association di liggéey liggéeyam. non pour mu mais yow daal sa interlocuteur état la. sama interlocuteur état la ñi yor ñi yor Ansu dafa waroon bi. de toute façon xam nga peut-être intéressé bi ko woowee lu ngeen échangé man naa ko. waaw euh, waxtaan ak moom ci ci mbir mi. li mm-hmm. xew mu naan la ak ak euh, bon. dans un premier temps dafa xawoon ragal. ne am na ñoo xamante ne nii la ma ko waxee ah. noonu laa koy mhm. waxee am na ñoo xamante ne dañuy dañuy laqatu si ginnaaw malade mentaux yi. Ah, pour di si am ay koom wala affaire yooyu. Mm. noonu la ko ci dund dafa dafa tàng. waaw mm. léegi man aussi ma toog benn période. Mhm. ma toog tuuti ma woowaat ko. Mhm. expliquer ko li nga xamante ne man bon moom ma tax a jóg. waaw lan moo tax ma bokk et tout ça expliqué ko après nag ba xelam dal ci mais man xaj na sax warum woon parce que moom comme ni ko waxee du état association la mais comme dama ko respecté par rapport ak li muy def et tout ça voilà la d'accord bu ñu demaat aywa ñu dem ci sa waay monsieur Cordonnier ay wa alaaji Modou <laughs> sa waay dafa wax ne maanaam état du leen jàppale Euh, ma jàpp ne Sénégal loolu dafa bari duñ koy dégg waa mais ma koy laaj est-ce que ñoom ñi ngi jege les institutions financières yi quoi yi nga xam ne ñoo ñooy ñooy jàpp ci financement yi nga xamante ne si ne mooy petite et moyenne yi comme ñoom ñi nga xamante ne si ne dañuy yëngu ci yu ndaw ak tamit ñoom seen li ñuy liggéey est-ce que mi qualité. lan moo tax maanaam chinois yi jëlee Chine di ko dugal ci bateau fayal douane indi ko ba noppi muy gën a yomb maanaam. Euh, seen dàll yooyu. damay dégg ngeen naan der dafa màgg der dafa màgg te tabaski ak kor tabaski ak ay màggara yi nii li rey fii ci ay xar ak gàtt ke fu mu toll. ana lan moo maatee ngeen jóg mànkoo seen biir booloo doon benn jóg di ko jëlee feneen di ko wëri di ko ñëw di ko wuli seen moo gën ñu koy yóbbu bitim réew. wëbtu ngeen koy wëbtu di ko jënaat lu a seer a seer man gis naa ne boo doon defan loolu moo gën a moins seer seen ko jënd foofu noonu di leen ko indiwaat di leen ko jaayaat fii nii lan moo waral lool am dañ kam dafa lu tax loolu noonu comme ñun dañoo bokk secteur artisanat bi ban formule nga jàpp ne mar nañ cee mën a booloo pour li nga xamante nii mooy difficulté yi ñu chinois yi nar a indil teer yi di ko xeex ko du ñëwee di ko xeex ñu man koo yëkkateendoo ñun ñëpp tegandoo ko mën cee am résultat bu favorable. ay laaj ndongo. waaw euh, bu njëkk bi. Mhm. moom dafay laaj financement yooyu ñu doon wax sànq. waaw mooy li ma la doon tontu. nee naa la financement yooyu ñun dégg lañ ci am ñu koy joxe kon nañ nañ ñu fekk ci terrain bi ñu waxtaan ak ñun sensibiliser ñu. bu fekkee bëgg dañu prouver ci loolu waxtaan ak ñun ñu xam ñun ne ñun jotuñu ci financement gisuñu ko buñ ko gisoo damay toog fii di ko wax ku ma ko mhm. mën a jox nañ ngi joti financement coordonné ñi man maa ko wax man noo nga ci des mhm. eh, maa ngi leen sant di leen gërëm kenn ki sama xarit la Moussa eh, ñoom posé wuñ sax mën naa ay question puisque dañoo bokk ñun secteur bi moo keneen ki doon wax ci kiwiir yi sunu feebar kii wax ci cuir bi li mu wax am na ah. importance li wax am na importance wax naa la ko sànq moom ah. moom moom xulawut yéen lay waxaat moom laaj ma sax question yow mi lay waxaat moom mooy loolu état la loolu liggéeyu état du ñun hmm. nee naa leen millions yi der mooy génn loolu ay milliards mais da daan am ay bàjj naar fii waaw waaw ay xuuru naar nekkoon ab Senghor ko fi defoon bataa moo nekkoon tëngéej booy génn ci rond point bi loolu la daan liggéey waaw bàjj naar yi nag der yi ñuul li moom laa lay wax mooy der yooyu noonu ñun artisanat lañ comme ñun rek amuñu doole ndeysaan ñu jar a jàppale lañ maire yooyu ngay seen kër yi seen njaboot yi ak yëpp di ko jaayate ay 1000 francs ki 2000 francs wala di ci góorgóorlu te ay industrie la ay usine chinois mu indi moom président Macky Sall loolu la waroon indi pour loolu sénégalais yi liggéey xaalis bi di sat ci ñun chinois ah, bi wala pôle jam ñaajo bee ñuy xotti fañ nar a xotti chinois yi na ko président Macky Sall arrêté tailleur yooyu mu fay dugal ak yëpp def ko baaji der yooyu noonu dana recruter lu mat dix mille personnes dinañu fa liggéey ay maire ndaw âge bu nekk fa mën liggéey ci der ñuy traité di wulli di defar der di ko exporté waaw ni partout ci Afrique ok ñëw ci troisième question ko apprécié kii dafa apprécié Moussa mooy Moussa mu ne lu tax du ngeen war a booloo yéen tamit booloo bi booloo wu leen loolu suñu défaut la ñu ngi ciy waxtaan chaque fois loolu moom défaut africain la ngeen baal ma ci wax bi ñun africain suñu problème mooy suñu défaut mooy euh, booloo moo jafe hmm. kenn gëmul kenn koo bëgg a jiital mu lay fa kastal mm. koy waxal du la déglu koo ne kaa ñu dem mu fa ne sa intérêt tax nga koy jiital ndaxte lii ñuy def dafa metti mm. Mm. Euh, lu ne di ko dégg booy gaaw doy ko gaaw découragé sax doo dem da ngay bàyyi quoi doo ñëw billaahi ndax doo ci daj dara cotisation bala nga ko doon xam sax surtout secteur informel nii nga ne woon dañuy def cotisation ñu def nangam pour taxawal nangam xamuñu ne li ngay déplacé dem da ngay jëli taxi da euh, da ngay def ay frais am na lu bëri sax loo def da ngay mais boo noon cotisation sax dañuy bañ moo tax booloo bi jafe problème boobu ñun am nañu ko loolu moom bëgguma expliquer waaye ni ku weex kee ñoo ànd ma nag moom sax wax nañ ci waxtaan nañ ci mel noonu d'accord d'accord saa ñu jëli ay rajo Modou Bigroon Bigroon li nga wax yow dafa leer waaye su yeetewul wala rab su yeetewul moom man nga dof fële te moom da nga war a def lu yeete yow moom li nga fi teg dafa rafet yow moom yow laa àndal. waaw Sidy moom waaye na waaye li mu wax ñëpp dégg nañ ko moom daal wàññi ay cër di wàññi ay cër ba agsi ci cër bi mënta tudd mu wax ko xeexee waaye man big róon man mooy sama problème man. ndax man Sidy Diop sax xam naa ko man. na ma leeralal dik roon mooy lan. xam na lam boobu lam wax. comme yow rek xam naa ji mooy kacep yéen ah. ñaara yem rek. bigiroon <laughs> eh, laaj yaa nga. ok moom bi nee na xam na. nee na yow sa bopp moom mooy lan. ak ku njëkk ki simi dafa apprécier li ma. dafa la ñu wax dafa apprécier. ok waaw bigiroon bi mooy li ma wax sànq xam nga big moo anglais la. Hmm. mais big day signifier lu ponkal quoi. léegi manta te soo déggee big bi li ngay njëkk a xalaat mooy kooku noonu xanaa ponkal nit la war a doon fekk big tuuti la ok waaw mais léegi kàllaama yi muy génne mooy ponkal quoi loolu ko big roon quoi defe na ñu dem jëli laaj yu mujj yi jëm ci landing landing ñu xool ba xam moom moom ku tàng xool la landing non tàng xol tugg <laughs> bi la di laaj ki nga xamante ni moo fi nekk opposant boobu di euh, nekk Amsatou Sow Sidibé kaar leneen dama koy laaj ba xam opposant moom dafa warta gis lu baax lu état def mu wax ko wala opposant dafa war a nekk rek ci lu bon la di ko wax di ko wax di ko wax ak li nga xamante ni mooy yàqu-yàqu yi euh, dama gis kat opposant yi nekk Sénégal duñ taxaw ni nguur gi def na lii kat baax na nan góorgóorlu wala kat nanu defar lii wala baax ñoom daal manifeste ak yeneen ak yeneen est-ce que war nañu xam ne day développé réew mi bu baax a baax a baax. man dama bëggoon xam à savoir que ne système de parrainage est-ce que yéen li ngeen mën a motal 1 pour cent du fichier électoral pour mën a participer ci élection présidentielle yi. bu njëkk bi bu njëkk bi moo ngi laaj est-ce que opposant dafa war nekk koo dafa di dóor rek ta bañ a wax lu baax l'état def day nekk di ŋàññi rek mhm. alors ku ñu xam-xam ni depuis fin 2010 ba tey ka parti Leneen ñoo ngi ko mettre en place mosoo dégg benn membre parti Leneen nekk ci politique politicienne bi wala wax jeeg dàggal sante bi. Hmm. ñun heure bu ñu jugee rek. Hmm. c'est parce que dañoo am lu ñu war a apporter wala lu ñu war a mën a yokk présidente Amsatou Sow Sidibé nag bokk nañ si lu ñu jàngal. Hmm. mooy respect de la personne mooy respecter nit ki. président Macky Sall njiit la. njiit ba nga xam ni liggéey na parce que programme moo tax ñu fal ko am na si lu mu liggéey mais soo gisee tey opposition gën a bëri si moom mooy entourage ak yenn faa yoo xam ni état waru ko doxee parti avant la patrie jël yoo xam ni ay comme soo jëlee si wàllum justice bi dafa am problème nga jël si wàllum jàng bi dafa am problème nga jël si wàllum faj bi dafa am ay problème yooyu yëpp nga koy dund soo jëlee fu mel ni ñun université Cheikh Anta Diop de Dakar bu ñu nekk di jàng sànq Sanjogu wax na ko ab étudiant problème bu nekk lay rencontré façon problème boo xalaat donc nga xam ne Sénégal moo bëri foo xam ni dafa métti mais ça ne veut pas dire que il n'a rien fait il a fait des choses mais c'est la finalité ci choses yooyu noonu d'accord ñëwal ci keneen kay jéggi siraat waaw jékki siwaat bi moom tontu naa si sànq sax wax naa si sànq mooy uh-huh. est-ce que danañ matal uh-huh. est-ce que danañ matal je pense que avenir moo ñuy jugé incha allah yàggatul mm-hmm. matatul sax douze dix mois wala su matee dix mois sa lay yem danañ fa dem te incha allah liste candidats yi di ngeen ci gis parti CAF leneen avec le secrétaire général professeur Amsatou Sow Sidibé d'accord kon euh, defe naa ni leer na Sadio ñu jëli suñu dernier élément loo ci xam suñu loo ci xam. buur yàlla war sagal tuuti njàng meek njàngale mi ne ci guddi gu bër setagul examen kenn xamagul ndax dañ ko amalam déet ndax année blanche dina amam déet examen yi ndax dañ ko randalam déet lii ku mu jaaxalul jaaxal nga ma ndax jàngalekat yi jaaxle nañu élèves yi jaaxle nañu waajuru ndongo yi jaaxle nañu faf nguur gi jaaxle na ci jamono ji ana lu ngeen ci xam euh, ñu jaajëfal waa régi ndongo loo ci xam njàng meeg njàngale bi sooxe loolu waaye li ma ci xam mooy Euh, ñoom lii ñuy laaj ci ñoom jàngalekat yi nañ leen ko jox laay wax man ñoom laa àndal pour ñu jox leen ko ndax dañuy hmm. euh, taal dëkk bi 2012 ñoom ñii toog fii tey ci réew mi ñoo àndoon ñoom di wax ci dëgg ngeen nekk hmm. kon bu ñu demee tey ba toog fii hmm. dañoo war a confirmer seen wax jooju ci dëgg ngeen nekk defal leen li ñoom d'accord ñu laaj euh, Big Rone Big Rone loo xam ok man li ma ci xam mooy comme njiit moom yàlla moo koy tànn mhm. te président bi yàlla moo ko fi teg mhm. te tamit askan bi moo tax mu toog fi gannaaw yàlla parce que ñoo ko booteel mhm. kon moom war na bàyyi xel donte mi ci mais war na woo jàngalekat yi ñu toog ñu waxtaan ñu seet nuñ trouver solution pour xale yi jàngi parce que réew mënul dem te njàng mi doxul te xeer bañ a am si kii bi ñu bañ a taal puno bañ a def dara ndax jàmm njëkk ci jàmm mujj ndax loolu la ñu bàkkee daal d'accord loolu laa leen rek suñu waxtaanee bu juboo mhm. vraiment jàmm am quoi. d'accord landi dañuy waxtaan mais mënuñoo juboo de. Euh, nañ nañ nañ amul lenn lu impossible dans la vie nañ nañu bañ a demee ay xol nañ teg ay xel xam nga ñii xam ne ñoom ñoo jiite ñii ñoom ñooy seen kilifa ñoom ñoo leen ñoo war a régler problème yi. ñi la xam ne ñii ñoo leen jiite donc ñoom kenn mënul dem bàyyi sa morom. d'accord lan de voilà. waaw man de am nakar ak tiis rek. Hmm. ak métit lu situation bi. Hmm. ndax suñu delloo 2014. ñoom ñoo woowoon jàngalekat yi ñu signé ay accord mhm. ñaanoon jàngalekat yi ñu mhm. mën a toog apaisé wu cinq cent milliards yi ñu def ci terre bi loolu nekkul loo xam ni réew da ko soxla ci ba muy ci teel teel teel dafa am loo xam ne du priorité mm. bi mooy ñàng benn ñàngale bi faj beeg sàmm jeeg lépp nañ ci dugal koom bi Sénégal am ci économie am ñu mën a développer secteur primaire di yéeg secteur par secteur. mais d'accord mën ngaa tàggatoo waale waaw maa ngi sant maa ngi sant waa Sénégal di sant waa parti Kaar leneen ak suñu njiit professeur Amsatou Sow Sidibé. d'accord di sant ñoo xam ni ñoom laa àndal tey ñëw fii ci émission bu mag bii di ataaya mooy convergence des jeunes du parti Kaar leneen ak ab euh, Abdou caaray mhm. sur mer ñi nga xam ne ñoo kii bi mobilisation bi ñëw tey maa ngi leen sant ñu ñaan Sénégal mhm. ñu ubbi seen i bët te xool te téye seen i carte <laughs> waajal 2019 d'accord Malick tàggatoo waaw maa ngi maa ngi rafetlu vraiment euh, jotaay bi mhm. euh, di tàggatoo nag ci gërëm ñi nga xamante ne ñoom laa àndal ñu bàyyi seen soxla yëpp vraiment ànd ak ñun mhm. ak ñi nga xamante ne maa ngi ñoom ñoo seeq liggéey bi parce que di liggéey liggéey boo xamante ne yow amuloo ci dara vraiment dafa metti n'est-ce pas may ànd ak muy ay njarka mhm. euh, coach Aziz ak Amadou Diallo tey ñëwul mhm. ak ñëpp ñi nga xamante ne daal ñu ngi ci ñi ngi ciy ñëw di ci contribuer ba pare may may fàttali mhm. lii nii euh, thérapie la du ay football rek dem participer benn tournoi ñëw thérapie la boo xamante ne dafay am conférence échange parce que ñun am na ñaari docteur fàtte naa leen yoo xamante ne ñu ngi bokk ci ci ci ci ci staff bi cent quatre-vingts patients ñoo fay nekk ak cent organisation yoo xamante ne day ñëw jóge ci àdduna bi yëpp Ah, ci conférence bi ba pare ah, dañuy féetewaale pardon euh, quarantième anniversaire u euh, ki tëjoon centre yooyu ma doon wax sànq waaw maa ngi maa ngi jéego di gërëm ñëpp euh, big ron ngay oh, tàggatoo xanaa ñu sant yàlla bu baax comme émission bi commencé na bismillah rahmaan rahim ba jeex si alhamdulilah rabbil mhm. lu ci ñaaw rek ñu xam ne nit moom matul mhm. parce que ñu jubluwuñ pour classe kenn parce que ñoo bokk Sénégal xam nga ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di leen sant di leen gërëm di wax nag Kaolack gi nga xamante ne moom la yàlla dogal ñu am ko nañu si dimbale quoi pour Kaolack am yoon yu baax Kaolack set ndaw ña fa nekk liggéey parce que Kaolack ndaw boo gis day jàng ba ne ar jël diplôme teg fa yor Jakarta ndax bëgg yor yaayam ak baayam di wax suñ koñ coof ak uh-huh. mooy koñ boo xam ne amul lotissement bu baax nañu si dimbalewaat bu baax dañu am problème mu ndox dañ am problème mu courant nañu si uh-huh. jàppale di sant nag délégation bi nga xam ne jógee nañ Kaolack amul kenn ku ma yëkkati paas jox la ci am ñoo xam ne ñi ngi jógee Dakar mhm. ndax sama jëmm ji mhm. maa sant ñi jàppale daal ñëpp mhm. ñoom daal ñoom ñëpp daal maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm daal bu baax di sant sama waa dëkk Fass Bërigo di ñaan télé bi nag li nga xamante ni moom lay teewalee Sénégal muy télé askan bi na si jàmm njëkk yàlla na si jàmm ndongo waaw man nag moom loo ci li may bala may am na daal damaa kado daal daa rafet sax carax yoo xam ne dama ci am lu ma ko bëgg a wax ak yow Betty man mi waaw léegi lii chinois du ko liggéey ana caméraman bi. ku koy liggéey eh, caméraman bi ñu koy xool. taay rek chinois. Ah. du liggéey lii. waaw dëgg la. lii ko liggéey ci sama loxo. ah rafet na. travail à la ma xool ba xam ndax dëgër na. tey bos dina ñëw xaaral rek saa yoo yoo xaaral ma lay jox tey di nga ne man yu nañ jàppale ude loolu moom di nga wax yow. ah en tout cas rafet na lii. Hmm. doo ngeen baal ma lii du publicité dara dañuy waxtaan ci débat bi li ñuy defar la ñuy wan sénégalais yi ñu du xeex ci hmm. doole ngay xeexi na suñu njiit yi gëm ñu nañu gëm li ñu am may ñaan suñu njiit yi nañu gëm li ñu am d'accord ñun dañu am fii xoolal Afrique ba mu daj fi am. waaw mais say temps waaw temps bi dama koy ñu jàppale ñu waaw rafet na la boo koy boo amoon ndoxu siti wala mm-hmm. ay ah, ko wax àdduna bépp ak may seetaan ak médecin ngay la lépp kiwiir la lii ñu ah, entreprise bi moo ko solal daal yooyu mu doon wax ci télé bi naan jëleen sol li moom muy salaam kiwiir waaw waaw ah, jeex na nag yaa ngi jàll service commercial yàlla doy na nag. bon dama joxe exemple rek. ah jeex saa moo ko moom. saa jëla yooyu nga génn ñu gis ko béti solal yi nga génn waa public bi gis <laughs> ko. waaw d'accord da jaar fii défi saa ma jëloon dama lay yàq da ngay simi nga sol nga sol yi. marakis marocain dee leen sol li ñu moom. saa yow yi ma xool sa marakis bi <laughs> saa ma sa benn daal ma xool. saa yi la sol yi chinois yi. <laughs> Maroc la jógee la sol. doo chinois la Maroc la léegi nag yii. <laughs> waaw mais en même temps cuir la. lii from eh, Sénégal mais ñaari paire pour la. bu carré laa la indil. yaa ngi dégg am na borom. voilà <laughs> <laughs> yii moom am na ko moom yii am na borom eh, laa la yii am na borom yaa ngi dégg léegi nag ginnaaw loolu. mbay wëlbati ko eh, aussi dégg ma Serigne Jong Jong. ay tailleur bi bu baax bu baax ñu koy wax Serigne Jong Jong Couture. Eh, di Sénégalais doy na nag. xam nga ay chinois du fi ñëw nii ñu tàggoo ah. waaye saa ñu def. waaw may may ñu nag yow ñu ngi euh, remercier bu baax. non non ñu ngi remercier bu baax Astou Ndiaye Dorobe Couture Cambérène 2 di remercier bu baax euh, Fatmata Sey Ndiir ci maquillage bi ak fulaar bi di remercier également assistance beeg invité yi. voilà ñi ngi gërëm bu baax ki nga xam ni moom la ñuy wax Pape Gora ak top top ñu ngi koy gërëm bu baax ci montage bi di gërëm Alaaji Moodu Diouf waaye itam ñu ngi gërëm Isaaxa ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi di gërëm waa groupe Ataaya ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay vraiment groupe Ataaya WhatsApp ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di am ci ñoom mbégte ak Babacar ñuy joxante dig daje beti mm. beneen ajjuma ci seen beneen émission Ataaya jërë ngeen jëf